koy nee na dafa am aw saar woo xam ne amul basmala loola mooy suratu tawba waaye ulamaaw am nañ fi ay aara ay xalaat yoo xam ne yu bari la xalaat yooya danañ ko tudd loolu ci la nar a dugg téeméeri aayaa ngi ci tawba ak ñaar fukk ak juróom-ñeent loolu li gën a bari ci qurraa yi muy ulamaawul qiraa loolu la ñuy wax danañ ko tuddee suratu baraa danañ koy tuddee suratul mubaasara wala muxziya danañ ko tuddee suratul faadixa wala musharida danañ ko tuddee it suratul aadaab wala suratul iqaab loola yëpp ay maanaa la yoo xam ne saar wi am na ko boo gisee ñu ne ko baraa mooy li saar wi di deñtalu ci kóolëre gu amoon na diggante yonent beeg yéefar yi saar wi daf koy dindi ak itam saar wi dana gaarlu naafeq yi yi ñu doon def saar wi dana wuññi suturas ñépp ñi nga xam ne nifaq lañ doon def saar wi dana leen toroxal ba wax lépp li doon nëbb saar wi dana tasaare seen mbooloo mbooloo bu ñu àndut ci dëgg boo fa waxee ak dëgg rek ñu teqali ko ak lépp li nga xam ne nekk na ci biir saar wi ci firi ay dana ko tudd am na ñu wax ne saar wi duwul aw saar moom kenn waaye ci leen faal la bokk loola am na ci mu mufassirone yi ñoo xam ne loolu la ñu bind waaye Muhammad Mahmoud Alxajazi moom dafay wax ne mu ne moom day wax ne saar wi saaru boppam la nee na lu tax mu nekk saaru boppam mooy tur yu bari yooyu mu tudd te saar wi ñu wax ne ci la bokk bariwul ay tur kon loolu mooy tekki ne kon saar wi saaru boppam rekk la ndax bu fekkoon ne mu bokk ci leen faal ndax ñàkk bi mu ñàkk am basma la ñu ne ci leen faal la bokk mu ne bu fekkoon loolu la kon du am aw tur te léegi nag tur yu bari far la am أما لنغا قمنا موتخ أمول بسم الله الرحمن الرحيم مي اسم الجليل الموصوف بالرحمن الرحيم لا لا لكوار الزمخشري وخنا كتي كشاف ودمي كشاف زمخشري دفني بنو لاجي ابن عيينة رضي الله عنه نكولو تخلولو دفوخني اسم الله السلام وأمان فلا يكتب في النبذ والمحاربة نانا اسم بسم الله كوكو تركو لريلا ترلو قبني يتم ترو جمالا ندم ساروي نك دفاي قيخ دي اي كولري كن كندوشي بند بسم الله الرحمن الرحيم abdullah ibnu abbas moom it soo demee ci tafsir bu mel ni ibnu kathir radiallahu anhu moom dafa bari xadis bari ga mu bari xadis moom ibnu kathir moo ko yóbbu ci xadis yu wéradi di ca nekk moo tax ajaasi ni am na lu ñu waxal ibnu kathir ci foofu waaye rag mu ne ragal na ne dañ ko koo teg waaye liñ waxal foofu ibnu abbas mun na ragal na ne dañ ko ko teg waaye defu ko ndax itam boo demee ci téere yooyu dañoo wax ne yonent bi dem na ci rafiqul aala fekk na waxa waxalagut sahaaba yi saar wi walla aay yi fan lay nekk mu ne loolu daal ragal na ne dañ ko wax loo ibnu abbas waaye waxu ko ndax du xel du mën a jàpp mukk alquran wàcc ci yonent bi yàlla ne ko na jottali mu jottali ba wax ne jottali naa mu jóge fi dem ci yàlla am lu mu leeralut julit ñi loola moom nee na xel mënu ko jàpp kon jooju wax bu ñëw ibnu abbas ko waxit nee na dañ ko ko teg waaye waxu li wér daal moo basmala muy bismillahi arrahmani arrahim aaya la bu dépendre ci benn saar aaya la bu amee indépendant daal moom la dëkkul itam ci wenn saar ci saar yii waaye dañ koy ubbee saar bu nekk ngir barkeelu donte nit ñaa ngi ciy am ay wuute itam ci sóorati li daal la nekk aaya waaye comme turu yàlla wu màgg la ñi di ko ubbee saar wu nekk ngir barkeeloo ko loolu daal mooy li nga xam ne moo gën wér ca seen wute ba léegi nag lu tax a saar wi loola fekk mu am benn nabza taarixiya benn fenêtre bu ndaw boo xam ne dañ koy ubbi ci histoire l'islam pour nga nara a dégg suratu baraa lan lay wax loola moo di ne atam juróom benneel ma ca gàddaay ga ci la yonent bi fasante woon kóllëre ak Quraysh ca Hudaybiya ne du ngeen xeexateeg man duma xeexati ak yéen ku dugg ci làqu ci yéen baax na ku làqu ci man baax na bani xuzaata ñëw làqu ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam bani bakr ibnu waayil dem làqu ci quraysh ndax banu bakr ak banu waayil mosuñoo juboo dañu daan xeex léegi nag bu ñu déggee kóllëre gi bani xuzaata làqu si ci yonent bi banu bakrin làqu ci quraysh loola moo amoon ci histoire ba benn bés ñu daldi wor ñoom bani bakr ñëw daldi ci bani xuzaata boom ci ay nit quraysh dimbali leen ci ngànnaay ak i góor ba bani bakr duma bani xuzaata xanaa kon ñoom ñoo njëkk firi kóllëre ci waxtu woowale amru ibnu salim al xuzaayi dal di war nak jité mbolo délégation ñew ci yenent bi ba ñu ñëwee né ko ñun ndey dañuy wut xétaliku ak ndimbal ndax ci yow lan laq won suñu non ba banu bakkar ñoo dal dal ci suñ kaw xex nak ñun alag na ci ñun ñu bari te kóolëre ba nga defoon quraish ñoom it war nañu ndax yónnee nañu ay góor ak ngànnaay Banu Bakr léegi nag ñu ne dañu bëgg nga dimbale ñu yonent bi ne laa nusurtu illam sur Banu Kaab yàlla bu ma yàlla dimbale bu fekkee ne dimbalewuma leen loola moo indi kóllëre ga jeex ndax fasante woon nañ ko ñeenti at jaf ca Hudaybiya léegi nag gannaaw ñaari at rek kóllëre ga yàqu fatu Makka nar a ñëw yonent bi alayhi salaatu wasalaam daal di bind lettre Quraysh ne leen léegi daal maa ngi nii di dem Xunayn bu ma ñibbisee kenn ci ñett yi bu ngeen ko deful dana dal ci seen kaw kenn benn bi moo di ne ñu toll ni ñu ngeen rey ci banu xuzaata nañu leen teg ci yéen ñu fayu bu loola amut ñépp ñu ngeen rey ci bani xuzaata ngeen dëye leen bu loola amut ñetteel bi mooy dinaa daje ak yéen ndax war ngeen yent bi dem xunayn ci wéru wari ci atam juróom ñetteel gannaaw ga mu jaar taayif takk leen ñaar fukki fan mënuñoo génn gannaaw ga ci wéru tabaski gannaaw wéru tabaski ak wéru tam xaret ci atam juróom ñeenteel ak wéru wari wéru diggi ak wéru diggu gàmmo ak ndeyi koor ak maam koor ca atam juróom-ñeenteel ba ca la def xareb Tabuuk te léppit saar wi dana ko wax kon dana ci wax lu aji ci Xunayn aji itam ci xareb Tabuuk yooya dana ko nettali yonent bi alayhi salaatu wasalaam ba mu jógee Tabuuk ci la def xajatul wida loola itam saar wa dana ko gaarlu ci la ko yàlla waxoon ne ko bu kenn kuy def yaramu neen di wërati kaaba gi na nga ko setal ci ay xëram ba bu fi dara desati léegi nag saar yi wàcc di wax yooyu yépp yonent bi ba mu bindee lettre nag ah gaa ne léegi nag day ñaaw na ndax it làq nit dem ne ko génneel nangami nit ñu rey leen neexul te lañu rey ci bànn bakri mënuñu ñuko jot di ko déye it ñun wajuñ pour xaré te mënu ëpp doole te sonanan kon dal du baax ñu ne kon nak tay day yoni délégation Abu Sufian yow ci bopam yaay dem nak boo démé ci yenent bi ma ngay denc sa doom umu Habibatu Ramlatu bintu Abu Sufian, aman te it sa morom la yéen a bokk yaru ci dëkk bi usmaan yéen bokk baay aman na nga jëlee fa daal ak yéwénoo Abu Sufyaan takk daal ñëw Madina giseeg Babacar wax ak moom jëlewu fa dara mu gis Ousmane mi mbokkal baay wax jëlewu fa dara ñoom ñëpp ñu ne ko ñun bi ñu gëmee yàllaa ko bi yéen taam dañ koy jox mbir ya képp koy négocier moom rek ngay waxal mooy nangu mooy bañ ñun def naan nañ def rek nu def nañ bàyyi nu bàyyi ndax gëm nañ ne yàllaa koy yónni yàllaa koy waxloo mu daal dugg kër yonent bi dugg néeg doomam umu habibata ramla bintu abi sufyaan toog ca lal ba doom ji ne ko bàyyi lal bi day duma la may nga toog ci mu ne ko lu tax mu ne ko lal bi lalu ku sell ki la lalu ku yàlla yónni la te yow yéefar nga te yéefar sobe la waroo toog ci lalu yónent bi mu daal di ne bëreetal di mer nag ne aa mbir mi day jéggi na dayoo nag léegi Muhammad mooma la gënal man mi la jur mu ne ko ndaxam sax du loolu mbir mi ay principe rek la ndem yàlla def ne innamal mushrikuuna najasun te yónent bi moom yàlla ne ko li yasabaan ku murij zaalal bayt sobe dootu ko mën a jege kon doo mën a toog ci lalam loolu la mën naa laa wutal feneen foo toog mu gedd dal di génn néeba ba mu ñëwee nag ci yenent bi bëgg koo gis daal mbir ma jafe mu am coono la mu doon wuti amuko mu dal di waññeeku ñëw mag daal daanaka jëlewuma fa dara dañ maa toroxal dañ maa géccal kon nag pexe amatul ci mbir mi xanaa ñu toog rek fekkee ne musiba nar a ñëw ci ñun ñu xam ne loolu la bu fekkee ne it ah am na lu ko fanq ñu xam saari wàcc yonent bi ne kon nag man duma bettaate te waxtu aj jot na te Babacar laa yebaloon moo jiite woon aj ga nit ñi di topp ci moom te saari wàcc na war naa ko yónnee Quraysh ñu jàng ko ba dégg ne ñoom ñoo wor danaa dal ci seen kaw dañoo yaakaar ne dama leen bett te it nag laa yuballigu anni ila mit nii kenn warul dem di jottali sama wax lu mooy kenn koo xam ne tey ci man nga bokk kon nag damay yebal ku bokk ci man mu yóbbul ma saar wi su demee wax ko ndax suratul bayaan ba mu wàccee abdullah ibnu mas'ud laa yebaloon mu dem ca kaaba ga jàng ko fa yéefare ñëw dagg ñaari noppam ne ko xawma kenn waaye yow xojor gone gii doo ko fi jàngati ndax abdullah ibnu mas'ud radiallahu an taxawaayam ak nit ku toog mooy yemoon bokk ci ñi wottoon alquran ëpp xam-xam ci sahaaba yi gën jee bokk ci ñi gën a bari lu ñu dajalee ci ay xadiis radiyallahu an fekkee jamono yonent bi yonent bi dem rafiqul la bàyyi ko fi mu xam lu bari moom abdullah ibnu mas'ud radiyallahu an ñaare hadis gën a wér yépp ci moom lay jógee moom abdullah ibnu mas'ud moom it bokk na ci ñi ñi nekk kéemtaan iraq la mujjoon dëkk iraq la dëkkoon léeg-léeg mu umra si gannaaw yonent bi wala mu aj si abdullah ibnu mas'ud jinne ya nga xam ne ñoo jàppoon ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam muy juróom-ñaari jinne nga xam ne ulamaawu tafsir tënk nañ seeni tur juróom-ñaari kuy jinne yooyu kenn ki nga xam ne ñaar ñi ci mujj ba kenn ka faatoo te jinne day ñëw ci melokaanu jaan lu bari dañu gis benn jaan boo xam ne bu rafet la ci yoon wi nee nañu amr ibn abdul aziz abdullah ibn masud moo ko doon nettali moo ko romb wala zeynul abidina ko romb jaan ju rafet ci kaw yoon wi mu dagg ci kaalam gi la ma jaan ji suul ko mu gis benn ci lewer bu mag ngelaw lu rëy mu dégg kuy wax ci biir ngelaw la naan kooku le ngeen ngeen suul mooy amir kuyel jinne li nga xam ne mu mujj ci ña jàppoon ci yonent bi ca naxlata maag moom noo ci des abdullah ibn mas'ud radiallahu an nit la ko doy waar fekke woon na xareb Tabuuk xareb Tabuuk nga xam ne mooy yonent bi alayhi salaatu wasalaam ba mu jógee di dem lenn ci saxaaba yi ñii dañu tàrde yéex a ñëw saxaaba bu mag boobu nga xam ne ulamaawu suffa wala ahlu suffa moo leen jiite woon dafa tàrde woon waaye keroog bi nga xam ne dafay ñëw ba dab si yonent bi yeneent bi ne ko yan na ko yàlla yërëm dox na moom kenn dab si ñu moom kenn dafa nar a dee moom kenn moom saxaa boobu itam ba mu dee dafa ànd ak benn jaamam ak benn jabaram jubawu la xalifa bi ci Medina muy gàddaay ba mu demee ba ci yoon wa nag mu faatu mu ne woon bu faatoo nañ ko teg ci kaw yoon wi dana am jaamu yàlla yu fi ñëw suul ko ibnu Mas'ud jóge Iraq war gëlamam ànd ak ñeneen mbooloo mu jiite leen ñuy umra mu ñëw fekk ko fi ñu ngi ko teg mu ne yàlla na ko yàlla yërëm yonent bi waxoon na ko ne na woon yamshi wahdahu wa wax wahdahu daf noo dab si ci xareb Tabuuk moom daal waaye dafa nar a dee moom daal ñu ma soo nettali yooyu boroomi garaayib la woon moo tax suratul bayaan ba mu ko jàng see ci ñu wattoon alquran la ñu njoof ñaari nopp yi yonent bi ne kon nag man ken duma ma sama wax ji lu moy ku bok ci man te narna yebal ko xamne ken duma na ndofi noppam ndax bañ ko yebale bañ dagge nopp yi dafa joy ne xam nga ne du Umar ibn al-Khattab xam nga ne duuma Hamza ibn Abdul Muttalib xam nga ne duma Ali ibn Abi Talib mo tax ngeen def ma nii ndax matuma nit waye be yonenti bi ne la yuballighu anni ila rajulin minni ku bok ci man moy yobbu suratul bayan ba makk jang ko ñepp ko ne bettuma len te ko kendo du daggay noppam dal di woo ali talib ibn abdul muttalib jox ko gelemam gi naan adba ne ko babakar demna yi mo jite ren ajga nang ko dabi boko dabe nga jang sar wi andak mom buñ ba mak nga jang ci digg kaaba gi suratu al baraa ba mu jeex takk ba ñu xam bettuma kenn ñom ñoo firi waye man ko ñom ñoo wor ali dal di war adba ma nga dab Babacar ca Zil Xulayfa mooy fa ñuy xarmalee mu ànd ak ci aj googale ñu dem ba ñu demee ba mag aliyun jàng suratul bayaan ba mu jeex ñu xam lépp lu yonent bi nar a def ak ñoom kon loolu mooy eh, ay nabza tarixiya boo xam ne dafa aju ci saar wi buur ne baraatun lii day ak dañ la minallaahi gu bàyyeekoo ci yàlla wa rasuulihi ak ab yónintaam dañ gi moo bàyyeekoo ci yàlla ak ab yónintaam ila ladina jëm ci ñépp ñi nga xam ne aatum fasante woon ngeen ak ñoom kóolëre minal mushrikiin ca yéefér ñooña luñ leen wax yàlla ne leen fasixu dox leen ànd ak ak ci suuf si arbaata legi aw tabaski la diggi tabaski wangi diggi nahaw dañuy wax ne am na ñu daan jang wa am ñu doon jàngee wa rasulihi wuteb jàngin nag amna bu dagan waaye du daganee fofu su da nga wax wa da nga bëgg wax ne wa anna wa bariun loola tawxiid da koy bañ li waral loola mooy danga booleeg yàlla ak yonent bi ci benn daraja loolu yonent bi du ko nangu duñ leen boole benn daraja duñ leen boole it ci tasniya benn xutbakat mas naa wax ne man ataa allaha wa rasulahu faqad rachat wa man asaahuma yonent bi ne ko biisal bu anta yow yaay xutbakat bu bon yow mi boole yàlla ak yonent bi ci tasniyatul asma te tasniyatul asma dafa ami charte ñaaree ñuy boole day am lu ñu bokk dal di yem niroo même boole gi ñu boole ñaari way wayjur ne ko abawaani ñaari baay daganut ci naxwu waaye min baabi taxlib la ko ulama wax ndax dañoo notal baay ja ci yaay ja boole jant ak weer ne leen xamaraani daganut naxwiyan waaye dagan na lugawiyan loola min baabi taxlib lañ ko tuddee kon ñaar yi mën a ànd la ñuy boole ci menn mbir boo waxee nag ne ann allaha bari un minal war a rasulahu yàlla ak yonent bi dañuy yem benn daraja bu ñuy dañee ci yéefér yi te loola tawxiid du ko nangu boo waxee war wa rasulihi bon nag lay gën a ñaaw ndax kon da wax ne yàlla dañ na ci eh, dañ na ci eh, yéefér yi dañ na ci bi yonentaam itam ndax kon koy atif ci mushrikiin wa rasuli koy itam du baax bi nga xamee nag ne seydna ali ibn abi talib ibnu abdul muttalib bokk na ci ñi yenoon alquran ci jamono yonent bi bokk ci bindkati wax yi dafa ñëw dégg benn waaye ngi jàng loola fekk na yonent dem na ci rafiqul ala lu yàgg aliyun dégg kuy jàng alquran naan wa anna allaha bariun min almushrikina wa rasulahu mu ne tekk ba yàgg mu daal di woo benn waay bu ñaan abul aswad addu ali mu ne ko maa bëgg nga tëral xam-xam boo xam ne su ko nit ñi xamee danañ ci mën a xam baat yi yore ay maska ba dootuñ koy yàq ndax bu ñu koy yàq dafa yàq maanaa mi day def déformer sens bi kenn du ko mën a dégg ti ndax day dégg naa loo xam ne daanaka yàllaa ma suturaal ne loolu mënoon na maa loo ndax daf ne waan laa bari unul mushrikiina dal dina war a suula mu ne ko kon nag xam-xam boobu mooy moom la ñuy tuddee naxwu muy xam-xamu grammaire wala ilmu boo xam ne daal yatanaawalu dirasata al irabi loolu la ñuy tuddee ilmu naxwi ña koy ña koy xam nag ñoom la ñuy tuddee nuxaatu mu ne ko kon nag darsu bu njëkk bi mooy ismun wa filun wa xarfun daal dina abul aswad du ali yow nag boo demee nag yaay taalif fànn googu def ci reegal onxu daaka naxwa loolu ko tuddee naxwu mu ne jublul ca wàlla googale loolu moo tax ñu naan ko xam-xamu naxwu waaye naxwu moo di jublu comme li alin waxoon abu aswad addu ali ne ko onxu daaka naxwa waa ji dem nag tëral ay reegalam ak i xawaayidam dal koy indi nit ñi di ko jàng ba tey jii ngir bañ yàq téere bi moo tax lu am solo la ci gis nga alquran ba léegi fu ko bindee dañ koy maas ngir bañ rek nit ku yàq ko ndax yàq gi dafay indi ab bakkaar ndax da ngay waxloo yàlla lu mu waxut wala nga waxloo yonent bi lu mu waxul moo tax ku ci nekk war na ci jéem a sonn daal ba ñàkk ko yàq yaakaar ne da nga doon defar fekk da ngay yàq moo tax ñiy jàng bi di wax yàlla naan lépp luñ ci yàq ya nag ñu ko baal ndax quran bokk na ci ay bakkaar yu rëy kon nag waa la nag yàlla bariwun aji dañ la mu inna لسي مم موي لاها بري ان كوك موي قبر من المشركين جارك مجرور عجيتي الله ورسوله كوك من غا وخني موميت مبتدلا مو قامني دانيو حسب خبرم دا ابن مالك نينا وحسب ما يعلم جائز كما تقول زيد عند بعد من عندكما كون نيم وخون ني وان الله بريء kon wa rasuluhu moom bari un jooju moo di xabaram ñu xasaf ko kon wa rasuluhu ak ab yónintaam it aji dañ la mu aji dañ ju mujj jooju ñu xasaf ko ndax bari un ju jëkk jee ko tegtale te wax suma yuclamu jaayis buur ne fa yéen dem tuub ngeen fa huwa loolu xayrun moo gën lakum ñeel leen wayin tawalaytum dem dëddu ngeen faalamu xam leen ne annakum naka yéen da xam ne yéen xayru mujizi laahi nekku leen di way mën a raw yàlla wa bashiri xamalal lazina ni nga xam ne kafaro weddi nañ na nga leen xamal bi aadaabin ci mbugal alimin mu daaji metti waxoon naa ne baata bashiri ci luxa mooy firi bégalal waaye mbugal kenn du ko begle kon bu toppee mbugal xamal lañ koy tekkee alquran luxay boppam la yore ila ladina lu mooy ña nga xam ne aahadtum fasante ngeen ak ñoom kóolëre ñu mel ni bani xuzaata min al mushrikina ci yéefér yi su ma lam yanquduukum yanquduukum te ñoom firiwuñ kóolëre wala yanqusuukum wàññi wàññiwuñ leen dara cheyan dara ci kóolëre gi walam yudaahiru dimbale wuñu kenn itam aleykum ci yéen ci xeex leen ahadan kenn ñooña nag fa attimu matal leen ci ñoom aadawum seen kóllëre ilaa muddatihim ba ca seen diir ba ina laa yàlla yuxibu dana fay almuttaqiina way ragal ña yàlla ibnu kasir wax na ci tafsiram ne aaya yi na mooy aaya yi nga xam ne dafa firi bépp kóllëre bu ay yéefér bindante nañ ko ak borom bi tabaraka wa taala loola nee na bu ñeenti weere jeexee foofa yem buur nag ne fayidan salaxa su boccee ko bu summee su wéyee alashuru alxurumu yooya ñu xaraamal xare faqtulu rey leen almushrikiina yéefér weer yooyu xaraama xare bu jeexee fu ngeen fekkati mushrik na ngeen ko rey xaysu wajattumum fu ngeen leen fekk wa xuduhum jàppaleen leen waxsuruhum takkaleen leen waqudu lahum kulla marsadin toog leen ci wépp yoon wu ñu daan fuglu di fa jaar na ngeen leen fa tomb looluy waqudu lahum kulla marsad fa in bu ñu tuubee nag wa aqaamoo ñu taxawal salaata julli waatoo ñu joxe zakata zaka. bu ñu tuubee bay julli di joxe azaka kon fa xalloo bay leen sabilum seeni yoon inna laa yàlla xafur na aji baa lamu leen yàlla rahimun aji yéram la mu leen léegi nag lislaam diine ju yaatu la ba tax na waxtu woo xamee ne ab yéefér ñëw na làqu cib julit ñaan ko kóolëre su ko kooku mayee benn julit bu mu rayeti kooku loolu lay wax ne wayin ahadun ndem kenn minal mushrikina ci yéefér yi istijaaraka làqu na la sàkku na sa ndimbal faajirhu làq ko hatta yasmaa ba nga dégg ci moom kalaama laay wax yàlla su ma ablixu jotal ko ma manahu kóolu téem ma man ma ngi bàyyi ko ci am nu loolu masdar mii mi yalan koy wax masdar mii mi ulamaawu naxwu ak ulamaawu sarf dañuy wax ne ci masdar lañ koy tëgg waaye am miim moo koy jiitu suñ fataayee xarafu mu jëwa ni ma mëna kon dañ naan masdar miimi mu ne waaye buñ ko kasara zarfun miimi lañ koy wax nga xam ne waxtu lay jàpp waaye ma mënahu kóolu téem googu ngeen jox ko ko loola ma ngay jàpp loola ma ngay jàpp ngeen jox ko lépp loo xam ne ci xeetu kóllëre la zalika loolu bi annahum naka ñoom xawmun aw nit lañ laa yaalamuuna ñoom ñoom xamuñu léegi nag lan moo tax yàlla akub yonentam yépp di denc ci yéefér yi loolu lay wax mu ne kayfa yakuun naka lay mën a nekkee lil mushrikiin ñaal yéefér yi ahdun kóolëre inda laahi fa yàlla wa inda rasulihi ak fa yonentaam loolu nan lay mën a nekkee ila ladina lu mooy ñi nga xam ne aahadtum fasante ngeen ak ñoom kolere inda al masjid al xaraami fa makka ñooña fa mastaqaamu lakum gépp kóolëre gu jubal nañ ko rek fastaqimu lahum jubal leen ko mu ñeel leen inna laa yàlla yuxibu dana fay almuttaqiina way ragal yàlla kayfa kawtéef naka kóolare gi di mën a amee nit ñoo xam ne wa in yazharu aleykum bu ñu amee ci yéen ka doole rek wa in yazharu aleykum bu ñu amee ci yéen benn kattan laa yarqaboo du ñu négatif fiikum ci yéen laa yarqaboo du ñu sàmm fiikum ci yéen illan benn kóolare wala dimmatan du caageen benn kóolare yor doonakum ñu ngi wax ba bëgg leen a gërëm lool rek bi afwaayam ci seen i gémmiñ di wax wax ju neex wa taabaatey bañ xulubum seen xol yi loolu wa aksaruhum la gën a bari ci ñoom faasiqoona way génn ak topp lañu ishtaraw jëndee nañ bi ayaati laay alquraanu yàlla samanan njëg te mooy àddina xale leen guddaa ji tuuti fa saddoo ñu fekk an sabili ci yoonu yàlla innahum ñoom saa bon na maakaano la ñu nekkoon yaamaluuna di def ko laa yarqabuuna duñu xaarati fii muminin ci benn julit duñ ca xaar illan benn kóolëre wala dimmatan du caageen kóolute ulaayika ñooñu hum ñoom almuctaduuna ñoo di way jéggi ña dayo wala ñoo di way way tooñ ya fa bu ñu tuubee nag ñoom yéefér wa aqaamu be ñuy taxawal salaata julli waato ñuy joxe zakata azaka fa ixwaanakum kon ñoog yéen ñoo yem ay mbokk lañu rek fi diini ci diini ji wa nu fassilu dananu biral al ayaati al quran ji li qawmin ñaal nit ñoo xam ne yaalamuuna danañu ko nangoo xam waaye way naka su bu ñu firee አይማነሁም ሴን ኮልሬ ሚን ባዕድ አህዲህም ገናው ሴን ኮልሬ ደገር ወጣዓኖኝ ድብ ሞይ ክሪቲገ አጀም ፊ ዲኒኩም ሴን ዲኔ ሱቦባ ፈቃቲሎ ቄክሌን አይመተል ኩፍሪ አኪሊ ፈየፍር ኢነሁም ኛውም ላ አይማነ ዴት ኮልሬ ለውም ኛለን ለአለሁም ndax ñoom yentehunañu daytalu alla tuqatiluun mo ndax du ngeen xeex qawman ak nit ñoo xam ne naka su firi nañ seen kóol firi nañu aymaanahum seen kóolëre waxam moo ñu yittewoo bi ixraaji rasuli ci génnee yonente bi ñii nu ngeen def ba du ngeen xeex ak ñoom waxum te ñoom kat ba daawukum ñoo leen njëkk tooñ awwala maratin ci yoonu jëkk wa ataxshawnahum ndax da ngeen leen di ragal fa laaw yàlla a xaqu moo gën a ay an taxshawu ngeen ragal ko in kuntum ndem nekk ngeen muminina di way gëm yàlla qaatiluhum xeex leen ak ñoom yuadibhum yuadibhum bugal leen laaw yàlla bi aydikum seeni loxo wa yuxzihim te muy toroxal leen wa yansurukum te muy dimbali leen alayhim ci ñoom wa yashfi te muy saafara sudura qawmin dani aw nit muminina ñi di way gëm wa ba muy demee xay sa qulubikum li nga xam ne mooy meram seen xol wa yatuubu laahu dana nangu yel yàlla tuub ala man yashaaw ci ku ko neex wallahu yàlla alimun aji xam la xakimun yalla aji xarala la am hasibtum ndax da ngeen di joortu rekk nag ne jiyaar du am ngeen di toog lu métti du am ndax da ngeen a joortu an tutraku ba bàyyef leen wala maa yaalamillahu ti xamut yàlla lazina ñi nga xam ne jaahadu jihaar nañ minkum ci yéen walam yettaxidu te jàppuñu min doonilaahi lu dul yàlla wala rasulihi du caageen yonent bi wala almuminin du caageen julit ñi fokk yàlla xam ñi nga xam ne duñ jàpp yàlla ak yonent yàlla duhoo yonent bi duhoo julit ñi ñi nga xam ne dañoo baax ba duñ jàpp ñooñu wali jotan ñu di xarit xarit walija mooy kuy dugg ci yow ak a waxtu wu nekk wallahu yàlla xabirun aji dañ kumpala bi ma taamaluuna ci la danañu danañu def ko maa kaane lil mushrikin lu ko taxa a wàcc abdullah ibnu radiallahu anhu ni ñu ko nett li woon léegi ci xare badar biñ leen jàppee ba yeew leen ñu xëy nag di leen xas naan yéefar yu bon yi yéen ceddu yilee yàqkat yilee mel nangam ki nangam amu leen lenn lu baax abbas ne yonente bi bu ngeen ñu jàppee itam nag am nañ lu baax ndax ñun ñooy dundal kaaba ga ñooy root sam-sam ñoo koy wëgg ñooy ganale gan ñun kay am nañ ay baax yorewuñu ay boni ay bon boni neen yàlla nag ne ak baax kat du loola loola sax waratu leen koo def maa kaana yellut lil mushrikiina ñeel yéefér yi an yaamuroo ñuy dundal masajida laay jàkku yàlla yi dina fekk ña ngay seede ala anfusihim seen bopp bil kufri ci kéefér ulaayika ñooñu xabitat sippeeku na amaaluhum seen jëf wa fi naari ci safarahum ñoom xaaliduna way beelu lañu innama yaamuru naka dundal masajid laayi jàkku yàlla manaa mën a ku gëm na billaahi ci yàlla wal yow mi ak bés alaaxiri bu daa ji mujj waa qaamate muy taxawal salaata julli waataa muy joxe sakata azaka walam yaxsha te du ragal ilallah lu ma yàlla fa asa mën na ñooñu an yakunu ñu nekk min almuhtadina ca way jub ya ajaltum ndax da ngeen a bëgg def nag siqaayatal xaaj ji nandal kuy aj si wa imaaratal masjidi ak dundal jàkk ji ci ay laltu alxaraami kaman amana ngeen bëgg koy yemale ak ki gëm na bilaay ci yàlla wal yow mi ak bés bi alaxiri bu daay ji mujj yemuñu wa jaadate mu jihaar fi sabilaay ci yoonu yàlla ñooñu laa yastawuuna duñu yem indalaay fa yàlla wallaahu yàlla laa yaadi du jubal alqawma nit ña addaalimina ñi di way tooñ léegi ne ñi nga xam ne amanoo gëm nañ waa hajaru te ñu gaddaay wa jaadu te ñu jihaar fi sabilillahi ci yoonu yàlla bi am waalihim seen i alal wa anfusihim ak seen bakkan aadamu ñoo gën a màgg darajatan indalaay fa yàlla ulaayika ñooñu hum ñoom alfaayisuuna ña di way taxe yubashiruhum dana bégal leen rabbuhum seen borom bi rahmatin ci yërmande minu bàyyi ko ci moom wa ridwanin ak ngërëm wa jannatin ak aljanna yoo xam ne lahum ñeel na leen fiyaa ci aljanna naimun ak xéewal muqimun gudaay ji sax xaalidi ni ñu di way sax fiyaa fa fale abadan fawwa inna laa yàlla indaw nekk na fa moom ajrun yool azimun boo xam ne aji màgg la yaa ayuha alladina amano ey yéen gaa ñi gëm alquran laa tattaxidu bu leen jàpp mukk abaakum seen baay yi wa ixwaanakum ak seen bokk yi awliyaa ñu di xarit in istahabu bu ñu gënee bëgg alkufra ak kéefër alal imaan yi ci gëm yàlla wa man yatawallaahum ku méngoon a leen minkum ci yéen ulaayika ñooñu hum ñoom abaalimuuna ñe di way tooñ xul waxal ne in kaana ndem nekk na abaawukum seen baay wa abnaawukum ak seen doom wa ixwaanukum ak seen mbokk yi wa aswaajukum ak seen jabar yi wa ashiratukum ak seen giir gi wa amwaalun ak alal joo xam ne iqtaraftumuha sàkku ngeen ko wa tijaaratun ak ak njula tax chaw na gu ngeen ragal kasaadaha ak lambam wa masaakinu ak kër tardaw naa goog neex na leen ba ngeen gërëm ko su fekkee yooyu yëpp ahabba moo ëpp cofeel ilaykum ci yéen mina laay ci yàlla wa rasulu yéen itam wa jaari nag jiyaar fi sabili ci yoonu yàlla ba tarabasoo kon muñ leen di xaar fa yàlla mu jëg yéen xataa yaati laaw ba yéen yàlla bi am ci mbiram wallaahu yàlla laa yaa di du jubal alqawma ni ñaal faasiqiina ñe di way gén ak topp léegi nag laqad allah yen julit ni dimbali na len yalla fi mawatani ci berep katiratan yu bari wa yawma hunain aqrab xareb iz ajabatkum ba len katratukum sen ak bari falan tukhni du jëriñ ankum ci yen seen dara wa daqat qat alaykum ci yéen alardu sufsa bima bi ma raxubat ngir li ngir ak limu yaatu lepp suma tawalitum ngen deddu yen ñep mu dubiri na di way joxe gannaaw xareb hunain bokk na ci xare yi gën a tàng jullit ña ba ñu jógee ca fatu mag muy atum juróom-ñetteel ci gàddaay ga yonent bi ñëwoon na ak njunney soldaar ubbee mag am na ñeneen ñaari junne yu tuube mag ci fatu mag ànd ak moom muy fukki junne ñaar ñu jàll jëm Xunayn ba ñu yeggee bari ga ñu bari xareb xunayeen xare bu doy waar la abu sufiyaan ndeysaan ibnu xarbin mu ngi tuub ci fatu mag yàlla xam ndax tuub ga moom dafa tiit wala lum mu gëmoon la bu yàgg aman na lum mu moon la bu yàgg ndax bokk na ci sahaaba yi ba ñu leen di wax radiyallahu anhum gannaaw fatu makka abu sufiyaan tuub na waaye abbas moo ñëw ndeer di ko ne këpp këpp mu jóg mu ne ko jógal bon le nga tos xam ah. Muhammad ñëwal na la ak xare boo xam ne ma ngi bari ba mel ni guddi bari ba mel ni du si géej xaw ma foo jëm mënoo ko dékku mënoo xeex ak moom xamoo nooy def mu dal di jóg toog ne ko waaw sa waay lu ciy pexe mu ne pexe Pergi ga amu ci xanaa nga dee rek wala nga tuub mu ne waaw tuub nag su ma ko bëggee nu may def mu ne ko tuub de soo ko bëggee danaa def pexe dimbale la ci mu ne danga may yóbbu ba ma àgg duñ ma rey mu ne danaa la yóbbu ba ci yenent bi kenn du la laal léegi njunney nit junne bu ci nekk fa ñu toog ñu nga taalab taal muy junney taal war tiit nañu lool Abu Sufyaan mooy burub dëkk bi xamul nu muy def mu ne ko kon day yóbbu ma rek mu daal di ko togg ci dul dul benn baax la bu yonent bi may mayoon Abbas mu di ko war ñu ñëw mbooloo mu ñu romb rek ñu ne ñooñu ñan la ñu ne Abbas la ñu ne ah, loolu baax na comme Abbas la bàyyi yonent bi la mbar baax yonent bi loolu dara nekku ci ba ñu ñëw ci taal bi nga xam ne mooy fukk ak mooy taalab fukkeel ak benn wala taalab juróom-ñeenteel Omar ibnul Xattaab ba nga ca ñu bari ci muhaajiroon ña nga ca dañ koy xammi ñu ne ñooy ñan la ñu ne Abbas la moo war ci bax la yonent bi ñu naa loolu day baax dara newu ci Omar ne leen déeréet Abu Sufyaan a ngi ci noonu yàlla bi kee moom la am ñu jóg ne dañ koy rey yonent bi ne bàyyi leen ko ñu bàyyi ko mu yegg si ci fukkeel bi fi nga xam ne fi la yonent bi nekk ak kibaaru sahaba ci leen saar ak muhaajiroon ba mu ñëwee daldi wàcc nag abbas ne yonent bi daldi ko reer nag ne ko yonent bi gis nga indil naa la sa mbokk mi sa mbokk quraysh mu bon mi le nee na dafa bëgg tuub dafa bëgg a ci kéefër yonent bi ne ko abbas daldi ne ko abbas bàyyi ko mu ñëw abu Sufyan wàcc mu ne ko nakam noo gisee mbir mi ndax gëmoo gëm nga gëmoo ba tey ne yàllaa yónni mu ne man kay musuma sikk ci ne yàllaa la yónni waxoon naa ko sax foo nekkut dama ne woon nag bu banu Hachim jëlee ko ñooy wadd kaaba gi ñooy root sam-sam daaru nat wata drapeau bi seen kër la takkee kon Quraysh yi ak yonente ñëwet ñu jël ko lii moo metti woon waaye man xamoon naa ne yàlla la yónni ndax na tuuma ci yow ay fen te yàgg naa ak yow te xam naa ne li nga ma magee bariwut ndax maag Babacar ak gaa yi la ñoo doon ànd kon xam naa lu bari ci yow xam naa ne doo fen daal di ne ashhadu an laa ilaha wa annaka rasulullah mu ne ko nag ñibbil mu ñibbi nag yenent bi abbas ne ko gis nga kii ku bëgg àddina la ku réy réy la moom abu sufyaan xam nga nooy def ëllëgam da koy jox dara daraja rek daal di yéene ne ku dugg kër abu sufyaan mucc na su ko defee moom nga tolele ko kaaba gi loolu moo taxoon ñu ne man daxala alkaabata fa wa man daxala dara abu sufyaan fa wa am ku yéene naan ëllëg ku dugg kër abu sufyaan sax mucc nga ndeysaan ku bëggaa dina la mu kontaan lool dal di bég lool ci daraja jooju nga xam ne jox nañ ko ko waaye nag mu ngi mel ni rek gëm gi am na lu ci des ci sa rek ba fatu makk jeexee ñu jëm xuneyn fukki junne ñaar fukki junne yu jógee madina ñaar ñu jóge makk abu sufyaan ci la bokk mu dem ba ca kanam mu làqatu ci garab xare bi di ko romb ni mu bare xare bi di ko romb di ko romb di ko romb ba yàgg ma ngi waxtu te yegu ko ndeke yonent baa ngi yegg si cig jóge ko gannaaw ma ngi teen rek di xool xare bi ba yàgg mu ne wallahi wallahi abbas xam naa ne sa nguur ak doomi mbokk mi rëy na ay eh, sa nguur ak doomi mbokk mi rëy abbas ak si ànd ak yonent abbas dóor ci mbokk mi ne ne ko ak yonente la duhut ak nguur mu ne ak yonente bokk abu sufyaan gëmam noonu la woon natt boobu dalati na ko beneen yoon mu toog ci jàkk ji yonent bi di xutba mu toog ci ron tànk yonent bi yonent bi di xutba di xutba ba yàgg muy xalaat di xalaat ba yàgg mu wax ci mu xelam far wax ko bu baax am na ci nit ñu ñoo xam ne suñuy suñuy dem ñoom kenn dañuy waxtu wax nank ba yàgg ndekki mu ngi koy wax mu naam bu daal dina wallahi la adri li ma galabani muhammad yonent bi jël euh, euh, roq bi mu yore woon dóor ko ko ci mbagg ne billaahi xalabtu ko yaa Aba ci yàlla laa la yàlla ci laa dëgg ba not la ci yàlla moo ma dimbale ci yow ba ma not la moom mu ngi doon yéem a xaw ma Muhammad nu ma notee mu yëlif Makka ma yëlif ma yëlif Medina ma yëlif ma yëlif Makka mu fexe ba not ma jël ñaari dëkk yépp xaw bi ma xalaba nii Muhammad bari ga ñu bari nag ci ba ñuy dem ci xarib Xunayn sahaaba ya ne al yawma laa nuxlabu maa katra bari gënu bari tey kenn du nu mën a nat waaye ba ñu demee ñu fekk yahud ya ñu ngi leen teeroo ki fett yoo xam ne dafa bari ba mel ni taw ñu bari ci saaba yi fa la ñu des ca xareb xunayin ba nga xam ne vague bi njëkk a dem yépp dañ leen a daaneel saaba yi commencé daw ñoom ñëpp ñu commencé daw nag omar ibnul xataab nee na keroog kay daw ba ñu daw ci xareb xunayin nee na kenn mësu koo gis ñu ne ko ba yow sax mu ne man sax keroog maa dàq daw te doj bu ñuy bérëng ñun ñépp rek dañoo daw moo tax ulamaawu siira ak ñi nettali di wax naan saxaaba yi dàq nañ yéefar yi ci badar dàq leen xaybar dàq leen xunayn dàq leen uxud dée wallaay uxud kay ñoom lañu ñu dàqoon xunayn saxaaba yi lañu ñu dàqoon lawlaa أن الله تبارك وتعالى ستر النبي ننتم كون دنگنان صحابي لنو دقون چي قرب أحد ناخ نيوم يب دوان نانيو بغا قامنا دل ننگناو با أم نيو يوتي پلاس چابو سفيان خنين يتم دقنا لن القرآن كواخ من سمة وليتم ген ددو ين يم مدبيرين ين جوغي گناو انتبه صلى الله عليه وسلم دالين عباس ييني الكوني اخبار لون دالي تخونان أنا نبي لا كذب أنا من عبد المطلب man yonente laa fen nekku ci manit maay doomi abdul muttalib kon lu tax ngeen di daw mbir ma metti ko lool mu taxaw yëkkati baatam naan ana nabiyu laa kadib anam na abdul muttalib booba la gaa ñi door a dellu si moo tax yàlla ne suma an mu wàcce laaw yàlla sakkinatoog dalam ala rasuli ci yenintaam wa alal muminina ci julin ni wa ansala yàlla wàccee junuudan ab lel boo xam ne lam taraw haa gisuleen ko wa addaba bugal na la jëne nga xam ne kafaro weddi nañ wa dalika loolu jazaul kaafiriin mooy payug yéeféer su ma yatubu laahu topp yàlla nangu tuub min baadi dalika gannaaw loolu ala man yashaaw ci ku ko neex wallahu yàlla gafurun aji baal la mu leen yàlla rahimun aji yërëm la mu leen yaa ayuha alladina amano yéen gaa ñi gëm alquran innama almushrikuun naka yéefér yi najasun sobe lañu falaa yaqrabu ba ñu jege almasjida jàkk ja al bi ñu ormaal baada amihim gannaaw at mii nga xam ne mooy tawbati wàcc nga xam ne mooy at mi nga xam ne ci la Babacar jiite aj ñuy ñu wor haasa mi wa in khiftum su ngeen ragalee aylatan ñàkk itam biir kaaba gi moom bu fi yéeféer duggti loolu moo tax boo jubloo màkk nangami kilomètre da nga gis ñu marqué pied nekku gëmut ku nekkul julit fii ngay yem ak ci diine nekk ndax yàlla moo ne bu ñu fi duggati ci xorom bi yépp su fekkee yéefari yi dañuy indi xéewal di indim njaay ak jënd ba ngeen ragal ñàkk ba ne nañ fi duggit yàlla ne wayen xiftum bu ngeen ragalee aylatan ak ñàkk fa sawfa yugniikum xaalse naa woomal loo leen laahu yàlla min fadli ci ngeen lam insha bu ko neexee inna laa yàlla alimun aji xam la yàlla xakimun aji xarala la qaatilu xeex leen la ji na ñi nga xam ne laa yuminuuna gëmuñu billaahi ci yàlla wala bil yawmi gëmuñ bés bi alaaxiri bu daaji mujj wala yuxarrimuuna duñu xaraamal maa xarama laahu la xaraamal na ko yàlla wa rasul ak yenintaam wala yeddiinoona duñu diina woo diinal xaqi diinay dëgg min alladina ci ñi nga xam joxef na leen tigi alkitaaba téere na ngeen xeex ak alul kitaabit xata yutu ba joxe aljizeta lempo muy galak an yeddin ci loxo wahum te ñoom saaxiruuna ñu nekk di way torox wa qaalati wax alyahud ñu ne uzayru ibnullahi doomu yàlla jàngoon nañu ci gannaaw qissatu Uzayr loolu moo tax yahudi ne doomu yàlla la wa qaalat wax naa nasaara ne almasihu isa ibnullahi doomu yàlla zalika wax jooju nag xawluhum seen wax rekk la bi afaayim seen i gémmiñ yu daayiwoona ñu ngi nuru xawla la sina waxi ñi nga xam ne kafaru weddi nañ min qablu jëkk qaatalahumullah yanna alag leen yàlla ana yufukuun ku fi dee fekk leen itaxasu jàpp nañ axbaarahum seen fóodeya wa ruhbaanahum ak seen labbeya arbaaban ñu di yàlla min dooni laay ñu bàyyi fa yàlla comme ñun rek suñuy fóodeeg suñuy boromi xam-xam ak suñu ñu màgg ci yàlla dañuy dem ba teg leen ci palaasu yàlla min dooni laa wal masih ibnu mariam wa ma bil hudaa cim njub wa diinil xaqi ak dinay dëgg li yuzhirahu ngir mu notal ko ngir mu feeñal ko mooy mu notal ko ala dini ci dini yi kulli lepp walaw kariha donte al mushrikun ñi nga xamne ne ay yefer lañu ya ayyuha alladina amanu ayen e gañi gamal qur'an inna katiran nakalu bari min al ahbari ci furi furi buñ ko waxe ci yahud yi lay doon war ruhban ak labbe suñ waxe ruhban nasaraan la ñu bari ci ñom la alali nit ñi bil batli ci tiaxan moy di len nax loolu bu ko deg rek la be lañ wax ak eh, yahud yi ya, waaye yow tigi lañ wax yow mi nga xam it <laughs> da nga am xam-xam wala da nga am cer ci yalla bu lekkaale li nit ñi ci tiaxan xulli bi nga xam ne yaa koy xulli sey beut wax ja ngay wax lo xam ne xamoo ca dara mu jëm xaybu ñu yaakar na ya xam lepp su ko defee nga di len di nax ñu lay jox seen alal te do len jangal ya ngay lek seen alal ci tiaxan waye su doon ñuy fekk an sabilillahi ci yoonu yàlla wala ci ne ñi nga xam ne nag yaknizuna ña ngay denc daaba wurus wal fiddata xaalis wala yanfiquuna te duñ ko dundale fi sabilillahi ci yoonu yàlla fa bashirum xamal leen bi adabin ci mbugal alimu mu daa ji metti yow ma yuxma mooy ñi nga xam ne dañuy denc alal duñ ko génnee azaka mu ne bu àlaxira dañuy tàngal alal ji yépp di la ko ñaas nu nu mu baree rek say lakk-lakk noonu lay toll mu ne yow ma yuxma bés ba di fi tàngal alayha ci alal ja fi naari jahannama ci safaraw jahannam fa tukkuwaa defi ñaas bi ak alal ji jibaawum seen jëya wa junubum ak seen walla ya wa duhóorum ak seen gannaaw ya naan haasa maa kanastu mooy li ngeen doon denc li an fisikum ñeel seen bopp fa zuuqoo mos leen maa kuntum li ngeen nekkoon takk ni soona di ndàmba ko ak di ko dence bàyyi na loolu inna iddata shuhuri naka li ma weer ya indallaahi fa yàlla weer yi nga xam ne mooy weer yi at mi itna achara fukk ñaar la shahran ci weer fi kitaabilaay ci tërëb yàlla yow ma xalaqa bis bi yàlla bindee asamawaati asamaan wala ardak suuf minaa nekk na ci fukki weer yeeg yaar yi arbaatun ñeent yoo xam ne xurumun yu haraama xare la zalika loolu nag xam ko ak jëfandikoo ko addiinu mooy diine alqayimu judaa ji jub fala tadlimu bu leen tooñ bu leen tooñ fii na ci weer yi anfusakum seen bopp mooy bu leen ci xeex loolu mooy weer yi yu haraama xare rod na ci hadis yonent bi ne wer yoyu moy zul qidati zul hijjati muharram ak rajab ndax yi dañu tegalo zul qidati digu tabaski ak tabaski ci bopum ak tam xaret yi dañu tegalo bi nga xamne moy rajab nak mom dafa bereku motax ñukoy wax rajabul fardi al harami waye ñent wer yoyu ñoy harama xare zul qidati zul hijjati muharram rajab nii la rottee ci xadis yonente bi alayhi salaatu wasalaam wa qaatilow xeex leen almushrikina yéefér yi kaafatan mbir mu ñu nekk mbooloo kama yuqaatilunakum naka ñuy xeex ak yéen kaafa ngeen di mbooloo waalamu xam leen ne ana laa nak yàlla ma almuttaqiin yàlla ànd nag ñi nga xam ne ñoo ñoo ragal yàlla ñi ko ragal ñooñu lay ànd ak ci ndimbalam innama nasiwu naka yéexe gi nag زيادة دليلة في الكفر لا أنا لن موكو تغوات دفع أمون بن يفير بمك بو قمني قلس لنكو تديون قلس دفع نكون يفير بمك bu Quraysh takkee xare bu xaabala it nara jiyaar yi am ñu ne ko dégg naa weer woowu dafa xaraama xare mu ne dem leen rekk dindi naa xaraam gi dellool naa leen ko aj xaraam gi ba ngeen dellusi si ma door koo delloo sama borom ne innama nasiwu naka yiixe googu waa ji di yiixe xaraam gi di ko téye ba ngeen dellusi kooku ziyaadatun dolli rekk la fil kufri ci kéeféram moom yoddalu day réeral bii ci loolu la dina ñi nga xam ne kafaroo weddi nañ gis nga yu xilluuna woo ñi ngi daganal xeex ci weer wi aman benn at mi bu déwénee wa yu xarrimuuna woo ñu araamal weer woowu aman ci menn at lu ko waral li yu waati u dañoo bëgg a dëgg iddatama xarama limab la xaraamal na ko laaw yàlla fa yuxillu ñu daganal maa xaramalaahu la xaraamal na ko yàlla zuyina rafetaleef na lawum ñeel leen soo amaalihim ñaaw ak seen jëf ja wallaahu yàlla laa di du jubal alqawma nit ña alkaafirina ña di way weddi yaa ayuha alladina amano ee yéen gaañi gam alquran maa lakum loog yéen isa qiila waxeef na lakum ñeel leen ne infiro génn leen ngeen dem fi sabilillahi xeexe ci yoonu yàlla attaqaltum ngeen di diis diislu ilal ardi jëm ci suuf araditum ndax da ngeen di gërëm bil xayaat duniyaa ci àddina min al axirati mu gën a leen alaxira fa ma mataawu l xayaati duniyaa dee di nekk xéewalu àddina bi boo ko dendalee fi l axirati ak muy nekk illaa qalil lu mooy lu tuuti in tanfiro su ngeen génnoon day illaa tanfiro su ngeen génnul itam du tere yuadibkum bugaleen aadaban bugal moo xam ne alimanaa ji mëtti illaa jooju li fi nekkoon in la ndem du ngeen génn in jooju ñu jël ko li daxaam ko ci laam gi mooy illaa tanfiru su ngeen génnul yuadibkum bugal leen adaban bugal aliman mu daa ji métti wa yastabdil te yàlla wuutal xawma nit xayrakum ñu duut yéen te kat bu fi yàlla jëlee indi ñeneen nit wala tadurruhu du ngeen ko lor seen tus wallaahu yàlla qadiruna jaatan la ala kulli shay'in ci lépp lëf illaa tansuruhu su ngeen dimbalewut yonent bi it faqad moom day yàlla dimbali na ko isax rajahu ba mu ko génnee la jëne ñi nga xam ne kafaro weddi nañ bi ko yéefar génne màkk yàlla moo ko dimbale saani yee is nay ni yonent bi aji dal di nekk aji ñaareel ñaar ña isuma ba ñoom ñaar fil xaari ña nga ca muy xaaru suur is yaquulu ba yonent bay wax di saaxibi yi ñeel saxaabaam ba muy Babacar moo tax Omar ibnul Xataab bi fi yonent bi jógee ñuy xëccoo naan Abu Ubaydata la Babacar sax moo ne fal leen abu ubaydata amir ibnu aljarrah ndax yonent bi moo ne kii mooy aminu hazil umma yonent bi ne kii moo gën a wóor ci xeet wi mooy abu ubayda kon jiital leen ko wala ngeen jiital omar ibnu alxataab ci la yonent bi ne dafa maando ba safara bu séene omar day dal di giim buy tàkk bu omar ñëwee dafay giim seytaane mbedd mu omar jaar bu seytaane jadd jaar meneen mbedd kon kooku na ngeen koy jiital loolu la Babacar nit ña Omar ne leen déedéet duñ jiital kenn lu may Babacar ndax moom rek la alquran tudda ak sahabaam ñun ñëpp suñu sahaaba dañ koy yaakaar waaye Babacar rek lay alquran wax naan is yaqulu li saahibihi ba yonent bi di wax sahabaam ba laa taxzan bul tiit ina laa nak yàlla maana ànd naag ñun fa anzalallah wàcce yàlla sakinatu ak dalam alayhi ci moom waaye dahoo mu dëgëral ko bi junoodin ci lel boo xam ne lam tarawaa gisu leen ko muy malaaka ya wa jaala yàlla def na كلمه الذين باتو نيغا خامني كفروا ويدي نان سفلا مو نيك داجي سوفه وكلمه الله باتو بيال هي موم العليا مو نيك اجي كوي والله يلا عزيز ناجي نول سي كاتنم يلا حكيم اجي قرال لا ان فرو ген لين خفافا نغي نيك دي وي ويف وتقارا ولا نغي نيك دي وي ديس وجاهدوا جيار لين بأموالكم سيني علل وأنفسكم أكسين بوب في سبيل الله يونو يال ذلكم لولو خير موغن لكم نيال إن كنتم ندم نيك نين تعلمونم di xam loolu law kaana bu nekkoon nag loola ñu ngi ko wàccee ci xareb Tabuuk ba yonent bi dem xareb Tabuuk day waxtu woo xam ne noor la mu tàng lool kër yi sedd lool naaj wi tàng lool mboyo mi metti ndox mi neexa lool te sedd tàndarma yu ñor muy waxtu góob ñu bari ne duñu dem ndax tàngaay beeg seddu kër yeek tàndarma ji nga xam ne dafa ñor yàlla ne law kaana bu nekkoon la yonent bay wootee ardan di marchandise xariban bu jege wa safaran wala mu nekk tukkim eh, tukki moo xam ne tukkim touriste la xaasidan boo xam ne dañ caa jublu alal kon la tabaxu ko ñu topp la walakin waaye baudat sori na alayhim ci ñoom suqatu dox bi diggante bi suqa mooy masaafa maanaa siifa bi diggante béréb bi ak bale mooy masaafa bi dafa sori ci seen diggante loolu moo tax nit ñi demuñu wa sa yaalifuuna xaalse nañoo géeñ bi laay ci yàlla naan mënunoo dem waaye law istataana suñu manoon la xaraj naa ñu génn maakum ànd ak yéen yow ñu ngay alak anfusahum seen bopp ci fen yi wallaahu yàlla yaalamu dina xam ne innakum yéen la kaadiboona way nar ngeen afallaahu bale na yàlla an ci yow lima azinta lu tax nga digal lawum ñeel leen ñi nga xam ne sax yaa leen waxoon ne toog leen ñoo ñu sax yàlla ngi la ci yedd lu tax nga digal leen xataa yatabayyana da nga waroon a toog ba xammi ba ba mu bir lakk ñeel la jëne ñi nga xam ne sadaqu dëggu nañ wa taala ma nga xam alkaadibiina way nar ya laa yastaazinuka du ñaan la ndigalal toog ñàkk dem ca xare ba la dina ñi nga xam ne yow mi noonu dinañu gëm billaay ci yàlla wala yow meeg bés alaaxiri bu daa ji mujj ñooñu duñu laaj ndigal mukk an yu jaahidoo ñu jihaar bi am waalim seen alal wa anfusihim ak seen bakkan wallaahu yàlla alimun aji xam la bil muttaqiina ci way ragal ñu yàlla innama yastaazinuka naka dana ñaan la ndigal la dina ñi nga xam ne laa yuminuuna gëmuñu billaay ci yàlla wala yow mi ak bés alaaxiri bu daay ji mujj war taabat ti sikk xulóobum seen xol ya fahum ñoom fi rey bin ci sikk yow boobu yetaraddaduna ñuy ñuy déng-déng yi buur ne walaw araado ba ñu bëggoo nit alxuróoja génn laa addoo kon ñu waajal la wañeel génn gi uddatan ak xaru fekkoon na ñu xaru ko waajal ko waaye uh, wutuñ ko benn xar mooy mooy bëgguñu ko woon walakin waaye kari allahu bañ na yàlla in biasahum seen a génn fa sabatahum moo tax yàlla gàllankoor leen waqiila waxeef la nekk uquudu toog leen maal qaaidina ànd ak ñi toog ba demuñu tabbuuk law xarajoo suñu génnoon fiikum ci yéen maa zaadukum duñu leen dolli illaa xabaalan lu mooy ak yàq ولا أوضعكم دجل نترل خلالكم تين دجنتي لبن يبغونكم يجي ساكلين الفتنة عندي فتنة تين وفيكم نكنة تين جلنيت سمعون يدق لهم نيلين والله يلا علي من أجي قملا بالظالم من أجي ويتونيا لقد ابتغوا ساكونا يوم الفتنة فتنة من قبل تيجك وقلبوا تني صفي لكن يلا الأمور أي مريه حتى جاء بديك الحق دق ودارت فين أمر الله مرم يلا wahum te ñoom kaarihuuna way bañ lañ ko wa minhum nekk na ca nekk na ca julit ña man yaqulu kuy wax naan i izan lii digal ma wala taftin te te bul nattuma digal ma ma toog ndax mënumaa dem bul ma teg mukk am nattu mënumaa dem tabuuk ala dëgg fil fitnati ci am nattu kay saqatu la ñu daanu nag muy nattu weddi way na jaan na ma naka safara la muxitatun aji léem la bil kaafirina ci naafiq yooyu nga xam ne dañoo weddi ba demuñ tabuuk in ka ndem jot na la ci xare ba xasanatun lu rafet muy alal ak mucc te soowoom nga gis mu naqari leen mooy tekki ne naafiq lañ waaye tusib ka ndem jot na la nag musibatun musiba yaqulu ñu nga naan qad axadna amrana ñun dee waay jëloon nañ suñuy précaution ñun dee waay qad axadna amrana jëloon nañ suñu mbir ba demunu min qablu ci jëkk waaye tawallaw ñu ngay dëddu waxum te ñoom farixoona way bég lañ xul waxal ne bu boo demee ca xare ba li la fa jot ak boo demulit dana la jot ñun dey lan yu si banaa du jot ñu illaa ma kataba lu mooy la la dogal na ko laaw yàlla lanaa ci ñun woowa yàlla mawlaana moo di suñu kilifa waa laay ci yàlla moomu falee tawakkal na sukkandiku na way gëm yàlla xul waxal ne xal tarabassuuna ndax danañu bi binaa ci ñun illaa ihdal xusna yey ni lu may kenn ci ñaari njëkk yi yéefér yi lan la ñuy xaar ci ñun ñaari njekk rek ñaari mbir yi ñuy xaar yépp ñun suñ jàmm la benn ñu dem dee fa buñ fa dee jàmm ndax dañuy shahid dem aljanna beneen bi mooy nu dem dal di gañe indi alal loolu itam xusnaa la kon nag dem jihaar moom ñaari njekk rek ci nekk benn nga shahid demal jan wala nga mucc indi màng kon nag ñi ñuy ñoo ñuy mu ñu ndiku hal yatarabasuna binna ila ihda alxusniyayni wa nahnu ñun na natarabasu noo ngi mu ñu ndiku bikum ci ci ci yéen an yusibakum ba jotale leen laahu yàlla bi aadaabin ci bugal min indihi mu bàyyee ko fa moom aw bi aydina wala ci su mu jógee ci suñuy loxo fa tarabasu muñ leen innaa ñun mutarabisuuna way muñu ndikku lañ maakum ànd ak yéen qul waxal ne anfiqu dundal leen seen alal ci jihaar tawaan mu neex leen aw karhan wala ñu forcé leen waaye boo gëmul yàlla daal lan yu taqabbala defun nangu minkum ci minkum ci yéen innakum yéen kuntum nekkoon ngeen xawman diw nit faasiqiina ñi daway gën a topp wa ma naum tereewu leen an tuqbala ba nangoo fat minum ci ñoom nafaqaatum seen dundale bi illaan annahum lu may ñoom kafaro weddi nañ billaahi ci yàlla wa rasul ak yonentam loolu moo tax seen nafaqaat yi ak seen dépense yi lu mu bari bari yàlla du ko nangu ndax ñoom kafaro billaahi wa rasuli wala yaatuna du ñu dikkalit ak julli ilaahum lu ñoom ku saalaa ñu nekk di way tayal wala yanfiquuna du ñu seen alal ilaahum lu ñoom kaarihuuna way bañ joxe lañ wala tuujib ko ngal bu yéem la amwaalum seen alal yi wala awlaaduhum du caageen seen doom innama yuridullahu nak bëgg na yàlla lu yuadibahum mu buggal leen biyaa ci alal ja fil xayaati ci dund bi adduniyaa bu daa ji jege wa tasaqate muy génnee anfusahum seen roox ya mooy bakkan ya wahum te ñoom kaafiruna way weddi lañ moo tax mu def leen noonu ba seen bakkan di génn fekk ñi ngi weddi yàlla wa yaxlifuuna ña ngay géeñ billaahi ci yàlla ne innahum naka ñoom la minkum bokk nañ ci yéen waaye wu maahum deen ñoom kat minkum ñu bokk ci yéen walakin hum waaye ñoom xawmun aw nit lañ ñoo xam ne yafraquuna dañoo ragal alfaraqu moo di alfaraqu moo di ragal yoo xam ne yu yu tar la bokkut ak farraqa ji teqali ji faraqa rekk la law ye ji su ñu amoon nag maljaan benn wéeruwaay ñoom yëfër ya ak nafiq ya aw magarratin wala benn xunt mu ñu mën a aw mu dëxalan wala benn duggukaay la walaw kon nga gis ñu dëdd ñoom ñëpp ilayhi jëm ca waxum te ñoom yeñ ma xoone ñi ngay gaawtu pour bëgg faa laqku ngir bañ a dem ci xareba wa minhum nekk na ci nafiqiya man yulmizuka ka dana ayibal la fi sadaqati ci asaka yi booy joxe asaka joxoo ko mu xas la ayibal la fay na utu minha waaye ndem joxeef na leen nag radaw ñu dal di bég de dal di gërëm waaye lam yutu ndem joxeefu leen minha isaawum ci betteel yasxatuuna ña nga mer walaw annahum donte naka ñoom ñooñu raddu gërëmoon nañ maa ataahum la jox na leen ko laaw yàlla wa rasul ak yonentaam wa qaaloo te ñu wax ne xasbunallaahu doy nañu yàlla sa yooti naa xalsa naa jox ñu laaw yàlla min fadli ci ngëneelam wa rasul ak yonentaam innaa ñun raaxibuuna way xemam lañ ila jëm ci yàlla kon mu baax azaka nag ana ñan lañ koy jox buur ne innama sadaqaatu nakaay azaka lil fuqara yi moo xam azaka la moo xam muri koor la muy sarax bi nga xam ne dafa war ñaan lañ koy jox yàlla mu méngoo séddalil ko boppam nekkul juróom-ñaari nit waaye juróom-ñaari xaaj la juróom-ñetti xaaj nekkul ay nit waaye ay melokaan la ñooña koo ci jéggi sa azaka du baax tax na ba ñu gën a recommandé nga jël sa azaka wala sa sa murikoor jox ko aji xam ji rekk te génn ci li ko waral ñaari mbir la benn bi mooy ñu bari ci ñay laaj foofa la ñuy jëm ñaareel bi moo di ne moom moo xam ñu ñu koy jox yow nag boo ko defee bi nga ko koy jébbalee booba nga ci wàcc léegi yow sa mbir yegg na ci palaasam ndax yàlla nee na woon ñii ñoo ko xam yëkkati naa jox ko ko loolu moo tax ñu koy faral di jox imaam ya walla imaam ba ngir yaakaar ne moom moo koy méngoo te laajkat yi it dañuy faral di seeti imaam ba naan fa la asaka yi sarax ya ndax mu jox ma ca kon loolu moo ci gën a noppale alquran a ngi nag teqale nee na nañ jox faqiir kan mooy faqiir ndax mooy ki nga xam ne li am doyu koom wala mooy ki amul dara ba xeeti dara jeex alimaamu malikin radiallahu an moom daf ne faqir mooy ki nga xam ne li mu am doyu ko waaye am na lu mu am bu fekkoon ne sax dafay liggéey ñu di ko jox lu bari ci weer wu nekk waaye li mu am ci ñi muy dundal bu leen ko joxee léeg-léeg du mat wala mu yem ca mu ne ko nekk na faqiir Malik noonu la gisee Shafii ne ko déedéet kooku miskin mooy ki nga xam ne li mu am doyu ko waaye faqiir kay moom mooy ki nga xam ne amul dara mu ne li ko waral yàlla dafa wax ne ama safinatu fa kaana li masakin gaal gi miskin ya ko moom kon miskin dana am waaye li mu am da ko du doy Shafii loolu la wax sëriñam mu ne waaw ndax miskin nag Malik nekk waaye miskin kay du am dara ndax yàlla waxatina ne aw miskinan zamatraba ki ñàkk bay amutu dàll ku ñàkk ba mbubbam xotteeku bay fàndaa ñuy dox ci suuf yàlla ne na kooku mooy miskin ala kullin bu fekkee ki Malik wax mooy faqir wala ki Shafii wax mooy faqir ala kulli xaal faqir la alquran jiital moom la ñuy jox te yaakaar naa ne li ñuy sukkandikoo mooy ki nga xam ne lim am daal doyu ko da koy jeexal balaa weer we dem fenn du amati dara kooku mooy faqiir te du mën a yelwaani ndax rus na ko ama miskin nag moom boo gisee faqiir jiitu miskin moom danañ ko jox gaa aajo woona waaye moom boo ko joxulit keneen jox ko ndax dafa sañ laaj kii sañ laaj kii faqiir nag mënut a yelwaan moom yow yaa koy xam rek comme ni alquran di wax ni naa yasaluna naasa ilxaafan du ñu laaj nit ñi doo leen xam lu mooy yaa koy xam yow mi ko xam rek waaye du feeñ moom léeg-léeg du feeñ la muy sol du feeñ ca na mu mel yow yaay xam rek ne kii ajo woon ñaareel ba mooy miskiin miskiin ajaasi nee na mooy ki ñàkk ba ñàkk ak yëngu maanaam munta liggéey munta yëngu jëm ci dara mu ne adimul xaraka li daafin aw li nuqsaan benn dafa doyadi walla dafa wàññeeku ci ay cëram nee na kooku moo di miskin ñetteel bi mooy ki ñu sant ki ñu sant muy liggéey ci azaka di ko dajale di ko dajale ak bu ku soxla ñëwee ñu ne ko demal ci ba nangam jox kookale kooka mooy ki cay liggéey moom it war nañ ko caa jox ndax war naa am ak pay ca liggéey boobu mu taxawe ñeenteel ba mooy ku ñuy miinal xolam loola nag ñaar la jàpp dana jàpp ki nga xam ne mu ngi nekk ci beneen benn diine bu bokkul ak lislaam te dëkk ak yow nga di ko ci jox di ko miinal ak di ko wane lislaam nii la mel ci dimbalante loola ko ci tane nga jox ko loola mooy ki ñuy miinal xolam walla boog ki nga xam ne day door a dugg ci diine ji te néew doole nga di ko jox gën koo dëgëral ci imaanam kooki dinañ ko jox asak juróomeel bi lislaam diiney ngore la ak njaam la lislaam bañ islam bëggul nga wax kenn jaam ndax waxtu woone nit jaam bi sëg rëy feeñ na xeeb kooka itam feeñ na te xamuñ nag yowmal qiyaam yaag moom ku cay tane te ngëneel nag foofa rek lay feeñee kon lislaam dafa bañ ñu jaamal nit tax na bu ne boo géñee dal di fen mu ne gorelal jaam ku nérele jabaram ak way juram mu ne gorelal jaam ku tey dog ci weeru koor benn bés mu ne gorelal jaam ku rey nit te ko mu ne gorelal jaam sàkk na bunt yu bari yu ñuy goreleeb jaam waaye sàkkul benn bunt bu ñu takkee ab jaam kon nag nekk na aada bu islaam daf ko fee fekkoon mënu ko dindi ci saa si mu koy dindi ndànk-ndànk moo tax lislaam nekkoon nag kooku ñuy wax ne jaam la na ngeen ko dajaleel asaka yi jox ko ko mu dem jox ko koy waxoon ne moo ko moom ndax mu goral ko mu demu yoonam wa fi riqabi docteur Cheltout radiallahu an neena recteur recteur université azar sabiqan neena wa fi riqabi man nañ ci deg xeetu julit wu néew doole di jaar ngir gore ngir am indépendance wala ngir jot sen bop lu mel ni Afghanistan masalan ay jullit yu yéefar yi ñoo leen néewal doole mu ne wala xeet wu gëm yàlla wu bëgg moom boppam bu nekk rek war nañu dajale azaka yépp yónnee ko ko ndax mu moom boppam mu ne loolu itam nga firi qaabila juróom-benneel bi mooy xaarimiin xaarim mooy nit koo xam ne yàlla dogal na leb na bor yu bari waaye lebul ngir yàq dafa leb ngir dundal ak njaboot leb ngir lekk leb ngir koddaay te mënatu koo fay kooku bu asaka yi jotee nañ leen dajale jox ko ndax mu fay bor yooyale benn bi mooy juróom ñaareel ba mooy wa fi sabilillah wa ma adraka lan mooy fi sabilillah mooy bépp mbir moo xam ne ci yoonu yàlla la jëm bu fekkee buñ dajalee as azaka yeeg muri koor yi joxe ko ci école bu arab bu ñuy tabax wala école alquran bu ñuy tabax walla jàngu bu ñuy defar loola fi sabilillahi la buñ ko dajalee itam jox ko ndongo ya nga xam ne ñooy jàngale ca daara googule te jàpp ñuy lu am solo loola fi sabilillahi la buñ ko dajale woon defaree ko aw yoon jullit ña jaar ca loola fi sabilillahi la buñ ko dajale woon jëndee ko garab yu bari seet dëkk bu manqué na ay garab ñu jox ko ko loola fi sabilillahi la buñ ko dajale woon tey ba mu bari ñu seet dëkk bu amul ab teen te jullit a fa ne ñu gasal leen ab teen loola fi sabilillahi la ndax gis nga lislaam dafa ubbil foofu jullit ñi banque solidarité bu fekkoon ne tey azaka yi ci ndakaaru yëpp dañu ko indil benn jëmm wala ñu indil ko benn mbooloo benn association islamique azaka yëpp ñu jox leen ko ñoom buñ ko dajalee mën nañu xool dëkk bi amul teen ñu defal ko teen mën nañ ci seet fu yàqu ci yoon ñu mën ko caa defar mën nañu seet ñi ñu war a faj te amuñ ko leen faj ñu tabaxal leen béréb bu ñu leen di fajee waaye jurit ñi dañ di seetlu alquran waaye yàlla ubbil na leen ay buntu solidarité yu bari yoo xam ne mën nañ koo def même tabaski rek bu fekkoo ne darab tabaski bu nekk ilimaan ngeen ko jox dari tabaski yépp mu boole ko su ko jaayee rek boo sàgganee dana mën na jënd ciment ba defar jàkk wala mu defar lu bari waaye nit ñi dañ du dimbalante ñii dañuy gas dar ba suul ñii sànni ko ñii neexalee ko ki doon yooyu yépp alquran mu ngi leen di delloosi ñëw bi bunte boo xam ne danañ ci mën a def ay projet yoo xam ne day jëriñ lislaam di jërit jëriñ julit ñi moo tax mu ne wa fi sabilillahi loolu itam nañ ci yóbbu azaka ndax azaka danañ ko tabaxee jàkk wala déet olamaa yi am nañ ci wute Cheikh Mahmoud Chaltout wax na ci fatawa bu Chaltout nee na gis na ne loolu mën na nekk ndax fi sabilillahi la waaye leen ci olomaaw yi dañ ne mën naa nekk ci projet bu nekk ba mu def tabax jàkk ndax tabax jàkk dafa nekkul farata ndax buñ tabaxul bii am na beneen bu tabaxu mën nga faa dem ñoo ñu nekkoon ni waruñ caa joxe azaka waaye cheltuut de joxe na fatwa ne aha kay azaka mën nañ koo dajalee pour tabaxee ko jàkk juróom-ñetteel bi mooy ibnu sabil wa ma adraka lan mooy ibnu sabil mooy nit koo xam ne dafa tumuranke dafa tumuranke ci réew ma mu nekk donte nga xam ne réew ma mu dëkk sax am lu fa am itam waaye dafa tumuranke nekkul foofu kooku danañ ko jox azaka ñi mooy juróom-ñett ñi nga xam alquran nee na nañu soppi azaka ak murikor, ñu jëm ca ñooña te itam suñ ko joxee ñooña mu rali tabbi tabbi waayam amma nag bu fekkee ni murum koor mi wala azaka ji fokk dafa am ku naan ba ci xel te kooku dëkkul fii nga war ko yenoo fii bàyyi ñu ko soxla ndax koo baqel fu sori nga yóbbu ko fa loolu nag du baax moo tax it ñiy wax ba ba ma ci xel daal li gën mooy bu ñu koy génnee nañu teew bu ñu teewee dal koy yóbbu bu ñu teewut nag ña fa jege te aajo woon ni ñoom ñooñu la ko sharia di jox buur ne innama sadaqaatu naka azaka yi lil fuqaraa yi ñeel na way ñàkk ya way aajowo ya wal masakin ak miskin yi wala amilina ak way liggéey alayha ci asaka wal muallafati ak ñi ñuy miinal qulubum seen xol yi qulubu faaili muallafa la xam naa daan la jaaxal waaye xam nga ne comme dafa nekk ismu maf'ul bu fekkoon ni ismu faail la اسم فاعل بتنوينه ولا مسكني كتي نفيو ولا استفهام ولا نهيو سبوبا اسم فاعل ديدل دي ام فاعل وايي كي نك لغز لا تي لي غنا جافي تي نحو لا موي اسم مفعول موم دو ام فاعل مك نايب فاعل ليام كون نك مؤلفه نيون مينال نيا قلوبهم موي نايب فاعل مؤلفه موم دا فاي مني مبني للمجهول كون اسم فاعل مويم فاعل اك مصدر سيغ واي محمد موم دانكا مصلى نقولو هيت للمؤمنين نيال جولين ورحمه يرمان لا الا جين نيال نيغا خامني امانو گم نين منكم تي يين ولا جين نيغا خامني نا يؤذونا ньо лор йонинте би дико айбал нан бен ноп донгла ньо лор расулуллах лаум ньелен азабун бугал алимун мо хамни аджи aji metti la bokk na ci jeexiti nifaaq mu ne yaxalifuuna ñi ngay géñ billaay ci yàlla ne lakum ñoom day ak yéen ñoo ànd wala lakum ñoom day seeni yëngu yépp ñeel na julit ña loolu tax ñu koy géñ li yorduukum ndax ñu gërëm loo leen waaye wallahu yàlla wa rasuluhu yonentam day xaqoo moo gën a ay an yorduuhu ñu gërëmal ko ñu gërëm loo ko waxut a xaqaa waxut an yorduuhuma ndax liñ doon wax léegi te ma ngi dellu ci allahu wa rasuluhu waaye axaqu la mu kooku ñaari àtt la ci yéen ñi ñi jàngoon naxu nag ñoom laay waxal loolu afala tafdil bu fekkee dafa ñëw gannaaw jam jamu wala gannaaw tasniya afala tafdil ja du nangu tasniya du nangu jamu moom moom yulaasimul ifraada يلازم الإفراد والتذكير لا يجمع ولا يؤنس ولا يثنى ما تنجد لك رجبنا الدولتين الأعظم دولة جيجين تيني مسنى لا وي أفضل تفضيل نيوني الأعظم جيجين لكو دفوك نيار أفضل تفضيل موم يلازم التذكيره yulaazimu taskira wal ifraada moo tax nga dégg mu ne allahu wa rasuluhu ne axaqu axaqu jooju baat bi góor la baat bi mufrad la te ñaar lay waxee loolu mooy att bu njëkk bi bu ñaareel bi wax naa la an yurduhu ñu gërëm loo ko an yurduhu nag mooy yàlla ak ab yonentaam kenn du leen tasniya bu fekkee ne kenn du leen tasniya nag bu daganoon kon dañuy wax ne an yurdu huma ñu gërëm loo leen waaye loolu daganut moo tax mu ne an yurduhu in kaanoon dem nekk nañ muminina di way gëm buur ne alam yaalamu ndax xamuñ ne annahu naka luy mbir man yuxaaddidi képp koo xam ne wuute na الله يلا ورسولك ينتام أن له هناك نكو نار جهنم سفر جهنم خالدا مي أجي بيلو مي سخ فيها ففلي ذلك اللولو الخزيو مي ترغتاني العظيم بودا أجي مك يحذر دنا واتنديكو المنافقون نافقيا نيغي واتنديكو سخ أن نزل بواجيفت عليهم تنيوم سورة سارو قمني تنبئهم دنا صلى الله bi maa fi qulubihim la nekk ci seen xol mu ne naafiq yi dañuy dem bay wattandiku naan man dey boo sàgg ne li may wax léegi tey alquran wàcca dal di ne nangam ak ki nangam moo tax naafiq bu nekk lépp li muy def ak li muy jëfandikoo <laughs> dafay wattandiku léegi tey alquran wàcc ne kii naafiq la li muy def nangam ak nangam moo tax mu ne yaxdaru almunafiquun an tunazala alayhim suura tunabbiuhum bob dana solo len bi maa fi qulubihim la nek ci sen xol yi qul waxal ne istaziu na ngeen yëjji na ngeen di reetaan ak yëjji inna la yàlla day mukhrijun aji genne la ma tahzuruna la da ngeen watandiku ko li ngeen di watandiku moy sen nifaq gi yàlla genne ko nu len neex ngeen mel wa yàlla dana ko genne wala in saltum ndem laaj nga len la yaqulunna danañu wax ne ma kunna naka nek nañ na khudu diqus wa nalabu nuy fo xul ne abillaahi ndax ci yàlla wa ayaatihi ak ay kaw kawtéefam ndax yàlla eh, laaj nga leen danañu wax ne ah ñun koy yee jiwuñu innama ku naa naka nekkoon nañ na xuudu di xuus wana laa bu nuy fo xul waxal ne léegi nag ngeen ne ngeen wax lu bon ma da ngeen di yëjji alquran ngeen ne da ngeen di forek léegi yàllaa ak yonentam ngeen di foye abillaahi ndax yàlla wa ayaati yi ak alquraanam wa rasuuli ak yonentam kuntum ngeen nekk tastasiyoona di yëjji laa taatadiru bu leen dogati benn ngant xat kafartum yéen weddi weddi ngeen daal baada imaanikum gannaaw bu ngeen gëmee inna fu ndem jéggale nanu an taifa ci kuré minkum ci yéen nu addim ñu bugal taifa beneen kuré ba ndax seen ak bon bi annahum ñoom kaanu nekk nañ mujrimina di way def ay bakkaar léegi bàyyi na loolu mu ngi jëm ci melokaanu nafiq nafiq du ay waxi kese waaye nafiq jëf lay doon nafiq itam mën nga wax ne melokaan la bu nekkee nag aw melokaan melokaan woowu la alquran di tudd nga xam ne tey ku cay góor walla muy jigéen itam danga nga daal di xam ne naafiq la buur ne bokk na ci màndargay naafiq ni mu rotee ci làmmiñu yonent bi alayhi salaatu wasalaam mooy ñi nga xam ne dañoo ragal a joxe seen alal ci yoonu yàlla dañoon na ya yent bi alayhi salaatu wasalaam nee na nee na mandargay naafiq mën nga wax ne ñetti mandarga moo ci gën a wér ayatul munafiqi talaatun ida xaddasa kadaba wa ida waada axlafa wa ida utumina xaana mu ne mandargay naafiq daal ñett ci gën a dëgër képp nit koo xam ne su waxee yow la mu wax du ko def wala koo xam ne su fasanteeg yow kóolëree dana la wor wala koo xam ne su la dëhalee mbir dana la wuruj nee na ñooñu nafiq lañu am na benn riwaaya buy wax naan ida xaddasa kadaba wa ida waada axlafa wa ida ahada gadara wa ida xaasama fajara nafiq mooy koo xam ne su waxee yow fen bu la dëxalee wor fasanteeg yow kóolare wuruj la suqaloog yow saaga la nee na kooku mooy naafiq ñooña nag mooy ñi nga xam ne borom tabaraka wa taala nee na ñoom safara mooy seen kër naafiq yu góor yi wal munaafiqaatu ak naafiq yu jigéen yi baaduhum ñenn ci ñet da ngeen wañi rajo yi bon seen prise yi seen prise bari mhm. ngeen muñal ñi buñ demee ngeen defaat yéen yi baaduhum ñenn ci ñoom min baadin ci ñenn ñi lañu bokk yaamuroo na ñuy digle bil bil munkari ci lu bon sote compteur ya. bi compteur bi xëcc ko ba noppi door koo bëgg jigéen yi buur ne na yaamuroona ñooy digle bil munkar yi ci lu bon kon ñoom ñooy safaanab julit ñi ndax julit ñi bi alquran waxee ne kuntum xayra ummatin uxrijat linnaas yéenay ñi gën ci nit ñi ndax da ngeen di digle lu baax di tere lu bon naafiq nag ñoom ñoom ñooy safaan ba dañuy digle lu bon di tere lu baax kon yaamuroona bil munkari wayen xaw na ñuy tere bi anil maarufi ci lu baax bu wa yaqbiduuna ñiy ngëb aydiyahum seeni loxo nasuu laaha fàtte nañu yàlla ba duñu ko topp fa nasiyahum yàlla fay leen seen ak fàtte ndax yàlla moom du fàtte buur ne innal munaafiqiin naka naafiqi yi hum ñoom tigi alfaasiquun ñoo di way gën ak topp waadallaahu dël na yàlla almunaafiqiin naafiqi yu góor yi wal munaafiqaat ak yu jigéen yi wal kuffaar ak yéefar yi yàlla moo leen dël naara jahannama safaraw jahannam xaalidina ñu di way béelu fiyaa foofale hiya jahannama xasbuhum moo leen di doy lu tax mu ne moo leen doy maanaa jëf ju bon yi def ni mu toll dara mënul leen a fay lu may jahannam moo tax mu ne hiya xasbuhum wa laanahumullahu soril na leen buur bi yërmande ndax yàlla du dox di rëbbaate waaye soril na leen yërmande la ñuy wax walaum ñeel na leen azabun bugal muqimun moo xam ne aji sax la kalladina naka ñi nga xam ne min qablikum ñoo leen jiitu kaanu nekkoon nañ ashadda di gën a tar minkum ci yéen quwatan ci kattan waa ak tara te ñuy gën a bari am waalan ci alal waa awlaadan ak i doom waaye ba ñu weddee it du tere alkende ñëw ci ñoom kalladina naka ñi nga xam ne min qablikum kaanu ashadd minkum quwatan waa ak tara am waalan waa awlaadan fastamtau moo tax mu ne bànneexu nañu bi xalaaqiim seen cër ba caadina fa stamtaatum yéen it bànneexu ngeen bi xalaaqikum seen ab cër kama stamtaa naka doon bànneexoo alladina ñi nga xam ne min qablikum ñoo leen jiitu woon bi xalaaqiim seen cër ba waxuttum xuus ngeen ci bon yi këllazi naka ki nga xam ne xaadoo xuus nañu ulaayika ñooñu xabitat sippeeku na amaaluhum seen jëf fi dunya wal axira wa ulaayika ñooñu hum ñoom alxaasiroona ñoo di way way perte ya alam alam yaati ndax dikkalul leen naba ullazina soloy ñi nga xam ne min qablihim ñoo leen jiitu mooy ñan mu ne xawma noox ndax nettali wuñ ko woon aakay ci darsu yu weesu wa aadin ak nitu aad wa samuud ak nitu samuud wa qawmu ibrahim wa ashaabu madian ak waa madian mooy nitu shuaybu ya wal mutafikaat ak ñi nga xam ne ñu ñu walbatiña la mooy ñu ñu benn ña mooy nitu yonent yàlla luut ya ñoom ñëpp atathum dikkal na leen rusulum seen yonent bil bayyinaati ci lay yu weex fa kaan kaana laahu nekkut yàlla li yadlimahum di tooñ leen walakin waaye kaanu nekkoon yaslimona di tooñ anfusahum seen bopp ñu julli bismillah ñu julli ne yàlla wax na ne ci ñoom ci beneen saar ne humul adu fahzarhum qaatalahum allahu an yufakuun ñoom tigi ñooñu yàlla alag leen te sànja leen ñooñu dana jëflanteeg ñoom léeg-léeg mu ñëwete léeg-léeg mu nooyal loola nag yéemuwul ndax yonent bi alayhi salaatu wassalaam ku mën a yërëm la waaye ku tedd jikko la jikko jikkowe la am yonent bi nekkul ku xiis nekkul koo xam ne itam dafa ñaaw làmmiñ moo tax muy wax naan charru naasi man xaafahu naasu ku yées ci nit ñi mooy koo xam ne nit ñi dañu laa ragal képp ku nit ñi ragal lool yaayis ci nit ñi ndax bon jikku xadis yu ci loolu lu bari la yent bi alayhi salaatu wasalaam daana jëflanteeg naafiq yi ni muy jëflantee ak julit ñi daawlam benn wuute loola nag jikko la ju nekk ci yonent bi waaye duwul ne dafa nekk ci ñooña te it daana dem sax ba naafiq yeeg ci yahud yi di ko ñaanal buñ koy nuyu naan ko yann nga dee di deseeg moom naan ko assaamu aleyka mu saam mooy dee yann dee nekk ci yow loola nam xalsee ñëw ca saare ca suuf moo yàlla di ko wax fii nag ne ko yow mi nga xam ne maa la yónni na nga jiyaar ak yéefér yi yéefér yi nga xam ne bokkuñu ak ñi nga fasanteek yow kóolëre na nga jihaar ak naafiq yi naafiq yi nag sooy wax ak ñoom nanga nga xiisal sa wax bul jëflanteeg ñoom ci nooyal walla talal sa kanam bul nangu di muuñ ci seen kanam waaye na nga ñëkkal sa kanam ci ñoom yi ñoom ndax ay ay naafeq lañu loola bu ci kenn dee itam bul ko jullee mukk ndax ñoom ay yéefar lañu naka noona taxaw ga ngay taxaw ci armeelu kenn ci ñoom mën na caa amee yërmande te loolu aaye nañ la ko bokk na ci nekk na ci xadisul masuur bi yàlla ne yonent bi jaahiril kuffaara bi sayfi wal munaafiqiina bil lisaan na nga jihaar ak yéefér yi ak jaasi na nga jihaar nag ak ñi nga xam ne ñoo di ay nafiq moom ci saw làmmiñ dàgge santeeg ñoom bee mu dëgër bu leen bàyyee itam benn baat boo xam ne wax nañ la ko lu may nga delloo leen ko naka noonu yéefar yooyu nga xam ne alquranul karim mu ngi wax ci ñoom wax ju jot ne ñoom ay fenkat lañ ñoom nafiq yooyu ay kaccoor lañ ñoom duñu gërëm lu mooy ak bon danañu géñ nag ci seen làmmiñ ne ñoom ñu ngi ànd ak yow waaye ànduñoo ak yow nee na ñoom ak kéefër rekk la ñuy wax ndax nit koo xam ne dangaa weddi gannaaw bi nga gëmee yàlla kooka ca kéefër googa ngay dee bañuñ lu may diine ji ñoom naa feq yooyu xuus nañ ci yonent beeg alquran xas ko ŋaññe ko yitte woon nañ sax jéem koo boom waaye yàlla moo leen ko mayut yàlla moo ko ko xamal ne ñii dañ laa bëgg alak dañ laa bëgg a rey génnal bàyyi leen dañuy génn nag ci fen ndax nga gërëm leen te itam seen ngéñ yooyu moom lañ bëgg a def mu nekk di pëkk ndax bu ñu génnee rek nga ne ah ñii daal ndem géñ nañ kon ñoom ci dëgg la ñu nekk mu ne loolu nag seen ngéñ la bu la tax mukk nga yaakaar ne dinañ la gëm ñoom nafiq yooyu duñu dañ ci seen ak nifaaq ay nit lañ ñoo xam ne duñu jóg ci loolu am nañu wax ne benn waay buñ naan jalaas ibnu suwayd dafa ne daal bu fekkee ne e, muhammad wax na dëgg kon suñu sang yi ak suñu kilifa yi bu fekkee daal li muhammad wax dëgg la kon nga xam ne ñun yahut suñ gaa yi ñu jiite kon ñoo yées ñoo yées sax mbaam ndax li Muhammad di wax ni mu mel ak suñ gaay yi li wax ni mu mel bu yéen bi waxee dëgg rek kon ñun suñ njiit yi mbaama leen tane Jalaas ibnu Suwayd mu wax loolu ay jaam nañu ne mu ngi wàcc ci ñi nga xam ne ñoo wute woon xarib Tabuk ci nafiq yi am nañu ne ma ngi wàcc ci waxtu wi nga xam ne Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul wax na waxam ju juréy joojale di wax ne yéen Eh, yéen yéen waa Madina amu leen benn saxukaay bu ngeen ne boo ngeen génn ci li ngeen nekk loolu la alquran di wax naan yaa ayyuha nabi e yow yonent bi jaahid na ngay jihaar alkufaara yéefar ya wal munaafiqiin ak naafiq ya waxluz na nga xiisee aleyhim ci ñoom wa maawaahum seen tappuwaay jahannam mooy safara wa bii sa bon na almasiru mujjuwaay ba yaalifuuna ña ngay géñ bi ci yàlla ne ma qaalu waxuñu ko ah kay wala qad wax nañ ci ak seen lammiñ kalimatal kufri baatu weddi ba wa kafaroo weddi nañu baada islaamihim gannaaw bu ñu gëmee yàlla wa yitte woo nañu bi maa lam yenaaloo loo xam ne amuñu ko maanaa ñu nga yitte woo la mënul am wa maa naqamu déet ñuy ayibal ak a yàq ana lan moo indi ayib ji ak ayibal jeeg yàq ga illaa an agnaahumullahu lu mooy dafa oomal looleen yàlla wa rasul ak yonentam min fadlihi dara mettiwul leen de lu mooy ki yàlla jox ci ci ngëneelam lu ko neex loolu daal lañ ne mënu fee nekk fayin ya tuubu suñu tuuboon yàkku nekk loolu xayran di aji gën lawum ñeel leen wayin ya tawallaw su fekkoon ne nag dañoo dëddu yuadibhum dana bugal leen laaw yàlla aadaaban mbugal moo xam ne aliman aji metti lamu mu fi duniyaa ci àddina wal axirati ak àlaxira wa maa lahum dee di ñee leen di ci suuf min waliyin kuy méngoo seen mbir wala nasirin du caageen koo xam ne aji aji tere la mu leen bay na loolu wa minhum man aahada loola lu ko tax wàcc benn waay ci leen saar bu tudd saalabata ibnu xaatib saalabata dafa ñëw ci yonent bi ne ko yow mi yàlla yónni dama ñàkk waay ñaanal ma ma am ñaanal yàlla yaatal sama wërsëg yonent bi ne ko way haka yaa saalaba qalilan tuaddi shukrahu xayrun min katirin laa tutiquhu lu tuuti loo mën a sant yàlla moo gën lu bari loo xam ne doo ko mën a àttan ndax alal ju bu te mënoo jox yàlla cant gu tolloog loola day mujj nekk mbugal ci yow waaje noppi yoonu ñaareel mu dellu si ne yow mi yàlla yónni ñaanal ma waaye ma am alal yonent bi ne kooti amma tarda an takuna misla nabiyallah law shitu an tusiira mail an tasiira mail jibaala dahaban la saarat xanaa doo gërëm nga mel ni yonent bi yàlla bi rek man maa ngi ni yoruma dara te suma ma neexoon ma sant doj yépp ñu nekk or ma moom ko kon ñu nangu ko te maa ngi nii su ma du ma reer aïcha radiallahu an yana na daanan toog ñetti weer ci kër yonent bi du nu lekk lu may ñaar ñu ñuul tàndarma ak ndox cin du fa tàkk safara sax du fa tàkk dara du fa nekk te moom la yàlla yónni albusayri nee na وأكدت زوده فيها ضرورته إن الضرورة لا تعدو على العصم وراودته الجبال الشم من ذهب عن نفسه فأراها أيما الشمم خيري دنيو نيو نكو يومي نغا قمني دنغا فنانا جلي قدي دي تغاو دي سجي دي سجي بنيو دولي بمناتو تغاو بي دي جل أي قير دفكو بني مرسو takk ko ci ndiggali ndax mu koy dimbalee ni muy sëggee ndax biir bi dara nekkatu ci guddi malaaka ñëw ne ko xeer yii muy jabalu abi qubays ak xeer wi nga xam ne mooy jabalu xiraa ñu nekk ci penku bëj saaluma penku bëj gànnaar kaaba gi xeer yi ne nañ seen borom nee na soo bëggee xer yi nekk wurus léegi nga moom ko mu ne nii daal mu ma gënal sant naa yàlla ci ni mu ma def yéen ti wax loolu saxlabat ah saxlabat a noppeeti mu ñëwaat yoonu ñetteel ne yow mi yàlla yónni may ma waay ñaanal ma yàlla mu may ma alal yéen bi ne ko baax na moo ndax bu la yàlla mayee alal da nga joxe xaqi alal ja saala ba ta ne walladi baatak bilxaqi la in daawta allaha fa razaqani maalan la utiyanna kulla di xaqin xaqa géej naa ci yàlla mi lay yónni su ma yàlla joxe alal lépp luy xaqi alal ja danaa ko def yàlla ne yéen yàlla yonent bi ne yàlla mayal saala bata alal saala bata di ñibbi ñu sarax ko benn gàtt mu yóbbaale ko ci këram bala weer wa dee gàtt ba jur juróom benn mu teg ay weer juróom benn ya bu ne jur juróom benn ak seen ndey juróom benn mu daldi bari mu jaay ca jëndaat yeneen yooye juree noona mu jaay ci jëndaat ay nag ñi jur mu bari saala ba te xëjatul madina mu ñëw daldi génn dëkk ba dem ci wenn xur ci xuri madina dëkk fa léegi bu ñu dee tisbaar mu ñëw julli takkusaan mu julli waaye nag julli guddi moom dootu ko mën a ñëw ci mbooloo mi ndax toppatoo jur gi mbir ma gën a màgg gën a bari saala ba léegi mënatu la julli si mbooloo aljuma rek lay ñëw li ci des yépp mu nga ci jur ga xur wu mu dëkk bu yàggee mu xatal ñooña ndax mbir ma dafa bari mu taxu ca weneen xur ca saalabata def na nu ba yàgg mu sori yi léegi nag bàyyi na jumaa sax dootu ko julli mënatu la ñëw léegi yenent bi ne way wayxa saalaba wax ko ñetti yoon tos kereñeel na ko tos kereñeel na ko ba alquran wàcce aaye ji nag xud min amwalihim sadaqa mu daldi yónni ñaari gaay ne dem leen ca saalabata su ngeen di jàppi asaka na ngeen romb saalabata ngeen jël azakaam door a wéy ñu romb nag saalabata romb baxlaan ak benn waay ci bani suley jël nañu ci bani saalab jël nañ ci bani baxlaan ak bani suleymin asaka léegi nag ba ñu jaaree ci saalabata ne ko nag léegi ñu jàngale lettre bi yonent bi bind daal di ko jàng ne yonent bi nee na nañ jaar ci yow nga jox ñu azakay sa jur gi nu yóbbul ko ko mu daal di ne ah ma haadihi ila waxtul ya lii daal moog impo niroo rek lii daal booye boo nga ne galag rek la waa dem leen daal ba wëññeeku gaañ dem ba ñu wëññeekoo del si ci saalabata mu lànk nag ne dootul joxe azaka bañ na du joxe dara ba mu ñëwee banu suleymi ñoom tànn la gën a rafet seen alal joxe joxe ci azaka ba yonent bi gisee gaa yaa ngay ñëw mu seen leen rek ñu ngi dàq alali azaka ji teeg seeguñu yonent bi ne yaa way xa saala ba taskare ñeel na saala ba dal di ñaanal banu suleymi bark alquran dal di wàcc nag wax lii mu wax ci saala ba saala ba dégg ko nag ne alquran waxee na ko mu daldi tànn nag azakaam yennee ko yenent bi yenent bi ne ko inna laa manaani an aqbala yàlla tere na ma nee na bu ma jël sa azaka kon dootuma ko jël yenent bi jëlul asakaam ba yenent bi dem ci rafiqul aala nanguwu ko mu daldi génne azaka jox ko Babacar Babacar bañ nen la yenent bi daawul jël duma ko jël Babacar jóge fi Omar ibnul Xataab ñëw mu génne asaka ji jox ko Omar bañ ne yonent bi jëlu ko Babacar jëlu ko duma ko jël ba fi Omar jógee xilaafatu Ousmane ibnu Affan nag moom itam Ousmane lànk ne du ko jël saalabata nag ma ngi dee ci weddi ak kéefër ci xilaafatu Ousmane ibnu Affan moo tax doomu aadama lépp li ko yàlla jox na ca téye te sant yàlla amaat na loolaa gën ci moom bari na ku ñàkk gëm ñàkk gën ci moom bari na ku toog tey yëreb jukki bu bari le woon du ko tal du ñëw di dégloo yoonam du ca nekk kon nag amaat na loolaa gën ci moom bari na ku mooy yàlla yu mu dugg yépp ay moyen moo ko ci dugal kon nag nu la yàlla def rek xamal ne moo gën ci yow booyee boo nga sant ko ca moom la alquran di wax naan wa minhum nekk na ci ñoom man aahada ku fasante kóolëree laa ak yàlla naan layin ataana ndem jox nanu yàlla min fadlihi ci ngëneelam te mooy alal lana saddaqan na danañu saraxe wala nakunan na dananu nekk min asaalihina ci way yiw yi fa lama ataahum ba joxee leen yàlla min fadlihi ca alalam ca ngëneel baxiloo ñu nay bi ca joxe ga wa tawallaw ñu dëddu wahum te ñoom mu'riduuna ñu nekk di way joxe gannaaw fa aqabahum wuutu ca seen gannaaw nag gannaaw loola nifaaqan ak naafiq fi quluubihim seen xol ya ilaa na yalqawnahu ba bés ba ñuy daje yàlla bi ma axlafu ci li nga xam ne moom la ñu wuute laa yàlla maa li ñu ko doon dël ba bi ma kaanu la ñu nekkoon yekk dibuuna di fen ko alam yaalamu ndax xamuñu ne ana laa naka yàlla yaalamu dana xam sirrahum seen li ñu nëbb wa najwaahum ak seen li feeñ waa na laa nag yàlla allaamul xuyóob yàlla aji xam la lépp li nga xam ne dafa faddu bàyyi na loolu léegi ma ngi jëm ci naafiq yi ni ñu daan loree julit ñi abdullah ibnu mas'ud radiallahu anhu nee na yàlla dafa digle ne nañu saraxe ñoom fekk na am na ci ñoom sax ñoo xam ne amuñu dara moo tax ma ne bu ne yàlla xeebul yéemul aha kay yàlla xeeb na ki am te du joxe wala muy joxe tuuti waaye yéem na ki am lu tuuti te xejal ceg joxe abdullah ibn mas'ud nee na aaya sarax bii ba mu wàccee da amuñu woon dara lu ñu saraxe waaye dañu daan dem taxani jaay matt mi ndax nu am lu nuy saraxe ndax yàlla moo ñu digal sarax moo tax yàlla ne alladina ñi nga xam ne yàlla yalmizuuna ñi ngay ayibal almutawiin yéefar yi naan waaw nit ku yorul dara bay taxan di jaay loy saraxeti yàlla nak ne allazina ñi nga xamne ne yelmisuuna ña ngay ayibal almutawiina way ciobare yi min mu'minina ci julin ñi fi sadaqati ci azaka yi wallazina ñi nga xamne la laa ñom amuñu illa juhdahum lu may seen ab fa sayaskharuna yasxaruuna xalse nañoo retaan minum ci ñom waye saxirallaahu fay yàlla yonent tibbi alayhi salatu wassalam abdullahi ibnu ubay ibnu salul moom doomam ci saaba yu mag yi la woon waaye baayam nag moo doon naafiq bu mag bi bi nga xam ne feebar na feebar bi metti doom ji ñëw na yonent bi sama baay day ndeysaan sonn na maa bëggoon day nga ñaanal ko yonent bi jël mbubbam ñaan ca jox ko mu ko waaye gis nga ko bu fekkoon barkeelu googu barke kon dana barke de ndax ci yonent bi lay jóge waaye boo gëmul yàlla barke mënul laa barkeel ndax iman nekku fa sol na mbubbam yonent bi deyaaleeg moom dem safara abdullah ibn ubay ba mu dee nag yeneen ñi teg ko ci bunte jàkk ji comme doom ji saaba bu baax la yonent bi nag taxaw ca kanam ne defar leen sàppe yi nar koo jullee omar ibnul xataab tey ci loxoom ne ko féq ne ko doo ko fi jullee kii maag yow noo ko xamandoor naa féq la ku bon la baxul santul yalla doo ko fi julle yent bi ñewat ci kanam masla ma ngi rus dom ji daal ne defar leen yi omar ne ko fiq ne mané do ko julle ndax ki baxul te ñun boko xam mu ne ko waaw omar ndax du man la yalla yoni mu ne ah naam yow la yalla yoni waye ki mom no boko xam ñun ñëpp ñu yoni wutit xam nañ ne baxul kon nak do ko fi ñaanal jéggal mos ak bonam gi yalla diko nara jéggal alquran ne dal di wàcc dëggal li omar waxoon yàlla ne wala tusalli bul julli bul jullee ala adin ci kenn minum ci yéefér yi maata koog deena abadan faw bu leen jullee wala taqum bul taxawit ala qabrihi ci bameelam bul jullee kenn bul taxaw ci bàmmeelab armeelab kenn ci ñooñu kon ndeke boroom xam-xam wala ku baax bu bokkee ci jullee ñu am ci yaakaar bu taxawee ci armeel yi kooku itam ñaan ñu yaakaar ca ndax bu loolu amutoon yàlla du ko wax wala taqum ala qabrihi ndax qiyaamu nabi aw qiyaamu alaalimi bil qabri fihi baraka moo tax mu ne ko wala taqum ala qabrihi innahum ñoom kafaroo weddi nañ billaay ci yàlla wa rasul ak yonent am wa maatoo ñu dee wahum te ñoom faasiquuna way génn ak topp lañ waaw ñaari aaya yooyu ñoo ànd kon moo tax yàlla ne ko istaghfir lahum na nga leen ñaanal jéggal aw laa tastaghfir lahum wala bu leen ñaanal njéggal in tastaghfir lahum boo leen ñaanalee njéggal ñoom naafiq yooyu sabiina marratan juróom ñaar fukki yoon it boo ko ñaanee njéggal lan yax falan allah du baal yàlla mukk lawum ñeel leen zalika loolu bi annahum ñoom kafaro weddi nañ billaahi ci yàlla wa rasulihi ñu weddi ab yonintaam loolu moo tax yàlla du leen baal wallaahu yàlla laa yaadi du jubalal xawma nit ña alfaasiqiina ñi di way génn ak topp ñi nga xam ne nag ñoo wuute woon ba demuñ xareb Tabuk sama borom ne fariha bég na almuxallafuuna ñañu wuut ñaña ñañu wuute loo bi ma qaadim seen toog ga ñu toog xilaafa rasulillahi wuute dem ca xare ba yonente ba dem na ca wa karihu bañ nañ an yu doo ñu jihaar bi am waalim seeni alal wa anfusim ak seen bakkan fi sabilillah wa qalu ña nga naan la tanfiru bu len genn di dem fil harri ci waxtu tangay bul waxal ne naru jahannam safaraw jahannama day ashaddu mo gëna tar haran ci tangay law kana buñ doon deg kon ñu xamne aw tangay du tere top yalla fal yadhaku kon day nañu re qalilan tuuti wal yabku koo nañu jooy na katiran lu bari ndax danañu dajeeg mbugalam yalla jazan bir mu nek dik pay bima ma kaanu ci liñ nekkoon yëg boone di fàggu ko léegi nag yàlla ne yonent bi gis nga naafiq yooye ci Medina ma wax la ne wala tusalli ala ahadin minhum abadan ma wax la itam ne istaghfir lahum aw laa tastaghfir lahum in tastaghfir lahum sabiina marratan lan yaghfir allahu lahum naafiq yooya bu ca julleeti kenn kenn kenn kenn yonent bi sallallahu alayhi wasallam yàlla ne na ko bu leen jullee bul taxaw ci seen xabru bu leen ñaanal bu ñu deeyee bul fekkee seen ak suul te xam na ne yonente bi alayhi salaatu wasalaam bu ñu daan suul ab julit daf naan istaxfiru li axikum wasalu lahu tasbita fa inahu al aana yusalu bu ñu suulee nit ba sottal yonente bi daan wax ne ñaanal leen ko ngeen ñaanal ko njëggal ngeen ñaanal yàlla saxal aw layam ndax fi mu toll ñu ngi koy laaj ci loolu alwaqidi yi nee na jële nañ ci muammir muammar mu jëlee ci zahri yi mu ne xuzayfat al yamani mooy ka yonente ba yónni woon ci xareb xandaax xusayfata ne yonente bi damaa woo ba ma ñëw mu ne xusayfa maa ngi lay waxal ay dara dara jooju bu ko wax kenn mu ne ko lu mu doon mu ne yàlla nee na ma bul julee diw bul julee diw bul julee diw bul julee diw ay naafiq lañ ñu bari lañu ci dëkk bi ci madina yonent bi nee na yàlla nee na ko bu mu jullee ñooñu mu ne ah Xusayfa bu ko wax kenn de mu ne waaw tax na ba gannaaw yonent bi bu ñu indiwaal niw ci penc mi Omar ibn amirul muminin day jékki rek di xool xusayfa bu wàccee jëm ca néew ba moo xam ne kii kuñ war a jullee la mu ñëw bu xusayfa te wàccul rek omar xam ne kii kenn waru koy jullee moo tax yàlla ne ñooñu ñooñu demuñ tabuuk muy naafiq yooyu ibnu ubay ak ñeneen ña fa in rajaaka allaahu ndem delloo na la yàlla ila taifatin ci ab kuré minum ci ñoom fastaasanooka ñooñu nga xam ne ñoo sàkku woon ci yow ndigal lil xuruji ci ñàkk génn googu faqul waxal lan taxruju dootu leen génn may ànd ak man abadan fawwa ci xare walan tuqaatiloo dootu leen xeex may ànd ak man adduwan benn noon innakum yéen raditum gërëm ngeen bil quudi ci jëkki awwala maratin ci yoonu jëkk wa fa qaudoo kon toog leen maal maal xa xaalifiina ànd ak ñiy wuute wala tusallibul julli ala adin ci kenn minum ci ñoom maata koog deena abadan faw wala taqum bul taxaw ala qabrihi innahum ñoom kafaroo weddinañ billaahi ci yàlla wa rasula yénintaam wa maatoo dee nañ waxum ñoom faasiquuna way gën ak toppalañ wala tujibka bu yéem la nag amwaalum seen i alal wala awlaaduhum du caageen seen i doom innama yuridullahu naka bëgg na yàlla an yuaddiba mu bugal leen biha ci alal jooju fi duniya wa tazaqa muy génnee anfusahum seen bakkan ak seen rooxu waxum te ñoom kaafiroona ñu ngi ànd ak weddi googu bàyyi na loolu ma ngi ñëw ci lan mooy mawqif yéefér yi nan lañu ñu gisee jihaar mu ne fa si unzilat ndem wàcc wa izaa unzilat ndem wàcceef na sooratun aw saar wuy wax naan an aminoo gëm leen billaay ci yàlla wa jaahidoo jihaar leen maa rasuli ànd ak yonentaam istaazanaka sàkku ci yow nag yonent bi sàkku ci yow ndigal ulo tawli borom kattan yi minum ci ñoom ku nekk wu ndigal ak ngant lu mu toogee wa qaalu ñu nga naan zarna bàyyi ñu nakun ñu nekk maal xaalifiin maal qaaidin ànd ak way toog yi radu gërëm nañ bi an yakunu ñu nekk maal and ak ñi nga xamne dañuy dañuy wuté wa tubia moy kaste ala qulubi sen qaliba ya iman bi ci dugg foofu ñoom ko na duñu dégg waye waaye rasul yonente bi wala jinaak ñi nga xamne amono gëm nañ ma wa and ak mom jaado ñoom ñoo jiar bi am walim ak seni alal wa anfusihim ak sen bop sen bakkan wa ulaayika ñooñu law ñen leen al ay ayyu wa ulaayika ñooñu hum ñoom muflihun ñoo di way texe aadallaahu dël na yàlla leen jannatin aljanna yoo xam ne tajri dina daw min taatiha ci suufam alanhaaru yali yent xaalidina ñi di way beelu fiyaa fafale zalika dugga aljanna daal alfawzu moo di texee alazimu gudaay ji màgg wa jaa dikk nag almuaddaruuna ñiñ joxoon ngant min al arabi ci arabi yi mooy sàmmkat yi li yuzana lahum ñoom it dañoo bëgg nga baal leen lawum ñeel leen wa qaada toog na la dina ñi nga xam ne kaddaboo weddi nañ laaha yàlla wa rasul ak arab yi nga xam ne am dañu amuñu doole ñoo ñëw nag di ñaan ngant lu ñooñu nga xam ne demuñu woon xareb Tabuuk mooy nitu Amir ibnu Tufayli ñoo ñëwoon na yonent bi ñun dey ah mënuñoo xeex dañu bëggoon nga bàyyi ñu ñu toog yàlla ne yonent bi buñ ñëwee nanga wax ne yàlla wax na ma seen mbir ay naafeq ngeen xaraat mbaana allahu min axbaarikum te yàlla doylu na walis leen moo loolu lay wax ne wa jaal mu addaroon min al arab li yuusana lahum waqaada toog na la ñi nga xam ne kaddabu boo nañ laa wa rasula sa yusibu dina jot la jëna ñi nga xam ne kafaroo weddi nañ minhum aadaabun bugal moo xam ne alimun aji metti la saala ala duafa warut ñi nga xam ne dañoo néew doole ana ñan ñooy ñi nga xam ne dañoo néew doole mooy ñi nga xam ne dañoo selmaxa ak ñi màggat ak ñi lompoñ ak ñi laggi ñooñu bu fekkee ne demuñ ca xare ba duñu am benn bakkaar ci ñàkk gee dem su fekkee ne kay secret bu ñu xam bu baax ci jullit ñi ñu wax ko secret bu ñu xam bu baax ci jullit ñi ñu nëbb ko ba yéefar yi duñ ko jot bu fekkee laayee nañ biir yàlla ak yonentaam kon ñoom ñoom duñu duñu am benn bakkaar am na nag ñeneen ñoo xam ne itam ñu ngi bokk ci banu maqrin juróom-ñaari doomi ndey lañ yu bokk ndey ak baay ñoom dañu ñëwoon bëgg dem xarit tabuuk ne amuñu fas amuñu gélëm amuñu tandrama amuñu yobbal ne leen yenent bi jox ay ngànnaay jox leen yobbal dañoo bëgg xare ji bi ne aw ma fi fas aw ma fi ngànnaay aw ma fi gëlëm gu ma leen jox aw ma yobbal ñu daal di jooy nag ndax ñàkk mën a dem gi ñàkk mën a dem ca xare ba ñooñe itam amuñu bakkaar moom la alquran di wax laysa ala duafa warut warul ñi nga xam ne dañoo doyadi warul leen ñoom it xarajun bakkaar bu ñu demul ci xare bi wala ala almarda warul way feebar ya xarajun bakkaar wala ala alladina warul ñi nga xam ne it laa yajiduna amuñu maa yunfiquuna la ñuy dundalee mooy li ñuy dépensoo ca xare ba warul leen harajun benn bakkaar charte nag ida nasaxu su fekkee laaye nañ biir di laay ñeel yàlla wa rasuli ak yonentaam maa alal muxsinin warul ñi nga xam ne dañoo rafetal min sabilin benn yoon wallahu yàlla gafurun aji baal la mu leen rahimun aji yéram la mu leen wala ala lazina bakkaar warul ñi nga xam ne it isa ma atawka bu ñu la dikkalee li taxmilahum ngir nga waral leen ba ñu xeexi xulta nga ne leen laa ajidu aw ma maa ahmilukum alayhi fu ma leen di waral nga gis leen nag tawalaw wallaw ngay dëddu waaye noom seen bët ya ma ngay bëbb mi dami ci ronkoñ xasanan ngir tiit allah yajidu ndax amuñu maa yanfiquuna li ñuy dundalee ñu am lu leen metti sadaqallahu mawlana azim yonente bi alayhi salatu wasalaam abdullahi ibnu ubay ibnu salul moom doomam ci sahaaba yu mag yi la woon waaye baayam nag moo doon naafiq bu mag bi bi nga xam ne feebar na feebar bi metti doom ji ñëw na yonent bi sama baay day ndeysaan sonn na maa bëggoon day nga ñaanal ko yonent bi jël mbubbam ñaan ca jox ko mu sol ko waaye gis nga ko bu fekkoon barkeelu googu barke kon dana barke de ndax ci yonent bi lay jógee waaye boo gëmul yàlla barke mënul laa barkeel ndax iman nekku fa sol na mbubbam yonent bi deyaaleeg moom dem safara abdullah ibnu ubay ba mu dee nag yeneen ñi teg ko ci bunte jàkk ji comme doom ji saaba bu baax la yeneen bi nag taxaw ca kanam ne defar leen sàppe yi nar koo jullee omar ibnul xataab te ci loxoom ne ko féq ne ko doo ko fi jullee kii maak yow noo ko xamandoor naa la ku bon la baaxul santul yàlla doo ko fi jullee yeneen bi ñëwaat ci kanam masla ma ngi doom ji daal di ne defar leen sàppe yi omar ne ko féq ne ma ne doo ko jullee ndax kii baaxul te ñun ñëpp noo ko boo ko xam mu ne ko waaw Omar ndax du man la yàlla yónni mu ne ah naam yow la yàlla yónni waaye kii moom noo bokk xam ñun ñëpp ñu yónni wutit xam nañ ne baaxul kon nag doo ko fi ñaanal njëggal moos ak bonam gi yàlla di ko nara jéggal alquran ne dal di wàcc dëggal li Omar ibn alxataab waxoon yàlla ne wala tusalli bul julli bul jullee ala aadin ci kenn minum ci yéefér yi maata koog deena abadan faw bu leen jullee wala taqum bul taxawit ala qabrihi ci bàmmeelam bul jullee kenn bul taxaw ci bàmmeelab armeelab kenn ci ñooñu kon ndeke boroom xam-xam wala ku baax bu bokkee ci jullee ñu am ci yaakaar bu taxawee ci armeeli kooku itam ñaan ñu yaakaar ca ndax bu loolu amutoon yàlla du ko wax wala taqum ala qabrihi ndax qiyaamu nabi aw qiyaamu alaalimi bil qabri fihi baraka moo tax mu ne ko wala taqum ala qabrihi innahum ñoom kafaroo weddi nañ billaay ci yàlla wa rasul ak am wa maatoo ñu dee waxum te ñoom faasiquuna way gën ak topp lañ waaw ñaari aaya yooyu ñoo ànd kon moo tax yàlla ne ko istaghfir la na nga leen ñaanal jéggal aw laa tastaghfir lahum wala bu leen ñaanal njéggal in la lahum boo leen ñaanalee njéggal ñoom naafiq yooyu sabiina marratan juróom ñaar fukki yoon it boo ko ñaanee njëggal lan yax falan yaxfirallah du baal yàlla mukk lawum ñeel leen zalika loolu bi annahum ñoom kafaro weddi nañ billaahi ci yàlla wa rasulihi ñu weddi ab yonentam loolu moo tax yàlla du leen baal wallaahu yàlla laaya di du jubal al qawma nit ña alfaasiqiina ñi di way génn ak topp ñi nga xam ne nag ñoo wuute woon ba demuñ xarib tabbu sama borom ne fariha bég na almuxallafuuna ñañu wuut ñañ ña ñañu wuuteloo bi maqaadim seen tok ga tok toog xilaafa rasulillahi wuute dem ca xare ba yonent ba dem na ca wa karihu bañ nañ an yu ñu jihaar bi am waalim seeni alal wa anfusim ak seen bakkan fi sabilillah wa qaaloo ña nga naan laa tanfiru bu leen génn di dem fil xarri ci waxtu tàngaay xul waxal ne naaru jahannam safaraw jahannama day ashaddu moo gën tar xaran ci tàngaay law kaana yafqoona buñ doon dégg kon ñu xam aw tàngaay du tere topp yàlla fal yadxaku kon day nañu ree xalilan tuuti wala yëpp koo nañu jooy nag katiran lu bari ndax danañu dajeeg mbugalam yàlla jazaan mbir mu nekk di pay bi ma kaanu ci liñ nekkoon yëg si boone di fàggu ko léegi nag yàlla ne yonent bi gis nga naafiq yooye ci Medina ma wax la ne wala tusalli ala ahadin minhum abadan ma wax la itam ne istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum sabiina maratan lan yaghfir allahu lahum naafiq yooya bu ca julleeti kenn kenn kenn kenn yonent bi sallallahu alayhi wasallam yàlla nee na ko bu leen jullee bul taxaw ci seen xabru bu leen ñaanal bu ñu deeyee bul fekkee seen ak suul te xam nañ ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam bu ñu daan suul ab jullit daf naan istaghfiru li axiikum wasalu lahu tasbita fa inahu aana yusalu bu ñu suulee nit ba sottal yonent bi daan wax ne ñaanal leen ko ngeen ñaanal ko njëggal ngeen ñaanal yàlla saxal aw layam ndax fi mu toll ñu ngi koy laaj ci loolu alwaaqidi nee na jële nañ ci muammir muammar mu jëlee ci yi mu ne xusayfat alyamani mooy que yonente ba yónni woon ci xareb xandaax xusayfata ne yonente bi damaa woo ba ma ñëw mu ne xusayfa maa ngi lay waxal ay dara dara jooju bu ko wax kenn mu ne ko lu mu doon mu ne yàlla nee na ma bul jullee diw bul jullee diw bul jullee diw bul jullee diw ay naafeq lañ ñu bari lañu ci dëkk bi ci madina yee yonent bi nee na yàlla nee na ko bu mu jullee ñooñu mu ne ah Xusayfa bu ko wax kenn de mu ne waaw tax na ba gannaaw yonent bi bu ñu indiwaal niw ci penc mi Omar ibn al-Khattab amirul muminin day jékki rek di xool Xusayfa bu wàccee jëm ca niw ba moo xam ne kii ku ñu war a jullee la mu ñëw bu Xusayfa te wàccul rek Omar xam ne kii kenn waru koy jullee moo tax yàlla ne ñooñu ñooñu demuñ Tabuk muy naafeq yooyu ibnu ubay ak ñeneen ña fa in ndem delloo na la yàlla ila taifatin ci ab kuré minum ci ñoom fastaasanooka ñooñu nga xam ne ñoo sàkku woon ci yow ndigal lil xuruji ci ñàkk génn googu faqul waxal lan taxruju dootu leen génn maa yi ak man abadan fawwa ci xare walan tuqaatiloo dootu leen xeex maa yi ànd ak man adduwan benn noon innakum yéen raditum gërëm ngeen bil quudi ci jëkki awwala maratin ci yoonu jëkk wa fa qaudoo kon toog leen maal maal xa xaalifiina ànd ak ñi wuute ولا تسلبوا الجل على عاد كن منهم تي نيوم ما تكوك دينا ابدا فاو ولا تقوم بالتغوى على قبره انهم نيوم كفروا بدين بالله تيال ورسول ينتام وما تودين وهم نيوم فاسقون ويجنك توبلين ولا تعجبك بويهم لنك اموالهم سيني علل ولا اولادهم رتاجن سيني دوم انما يريد الله انك بغنا يالا ان يعذب مبغلين بها تيال الجوج في الدنيا وتزاقم ويجني انفسهم سين بكن ak seen rooxu waxum te ñoom kaafiroona ñu ngi ànd ak weddi googu bàyyi na loolu ma ngi ñëw ci lan mooy mawqif yéeféri yi nan la ñu gisee jihaar mu ne fa ida unzilat ndem wàcc wa ida ndem wàcceef na sóoratun aw saar wuy wax naan an aminu gëm leen billaay ci yàlla wa jaahidoo jihaar leen maa rasuli ànd ak yonentaam istaazanaka sakku ci yow nag yonent bi sàkku ci yew ndigal ulu tawli borom kattan yi minum ci ñoom ku nekk wu ndigal ak ngant lu mu toogee wa qaalu ñu nga naan zarna bàyyi ñu nakun ñu nekk maal xaalifiin maal qaaidin ànd ak way toog yi radu gërëm nañ bi an yakunu ñu nekk maal ànd ak ñi nga xam dañuy dañuy wuute wa tubia mooy kaste ala qulubi seen xol ya iman du ci dugg foofu ñoom laa deg, duñu dégg laakin waaye rasulu yenente bi wala dinaag ñi nga xam ne amonoo gëm nañ maa wa ànd ak moom jaado ñoom ñoo bi am waalim ak seeni alal wa anfusihim ak seen bopp seen bakkan ulaayika ñooñu lahum ñen leen alxayraatu ay yiw ulaayika ñooñu hum ñoom muflihun ñoo di way texe adallahu dël na yàlla lahum ñen leen jannatin al janna yo xamne tajri dina daw min taatiyaa ci al anharu yali yent khalidina ñi di way beelu fiyaa fafale zalika dugal janna dal al moo di texe alazimu gudaay ji mag wa jaa dikkana al muaddaruna ñi joxon ngant min al arabi ci aarabi yi mooy sàmmkat yi li yuzana lahum ñoom it dañoo bëgg nga baal leen lahum ñeel leen wa qaada toog na la dina ñi nga xam ne kaddaboo weddi nañ laaha yàlla wa rasul ak yonentaam aarabi yi nga xam ne am dañu amuñu doole ñoo ñëw nag di ñaan ngant lu ñooñu nga xam ne demuñu woon xareb Tabuuk mooy nitu Amir ibnu Tufayli ñoo ñëwoon na yonent bi ñun dey ah mënuñoo xeex dañu bëggoon nga bàyyi ñu ñu toog yàlla ne yonent bi buñ ñëwee na nga wax ne yàlla wax na ma seen mbir ay na naafeq ngeen xaraat mbaana allahu min axbaarikum te yàlla doylu na walis leen moo loolu lay wax ne wa jaal muaddaroon min al arab li yuusana lahum wa qaada toog na la dina ñi nga xam ne kaddabu weddi nañ laa wa rasula sa yusibu dina jot la dina ñi nga xam ne kafaro weddi nañ min hum aadaabun bugal moo xam ne alimun aji metti la lay laysa ala duafa warut ñi nga xam ne dañoo néew doole ñan ñooy ñi nga xam ne dañoo néew doole mooy ñi nga xam ne dañoo selmaxa ak ñi màggat ak ñi lompoñ ak ñi laggi ñooñu bu fekkee ne demuñ ca xare ba duñu am benn bakkaar ci ñàkk gee dem su fekkee ne kay secret bu ñu xam bu baax ci jullit yi ñu wax ko secret bu ñu xam bu baax ci jullit yi ñu nëbb ko ba yéefar yi duñ ko jot bu fekkee laayee nañ biir yàlla ak yonentam kon ñoom ñoom duñu duñu am benn bakkaar am na nag ñeneen ñoo xam ne itam ñu ngi bokk ci banu maqrin juróom ñaari doomi ndey lañ yu bokk ndey ak baay ñoom dañuy ñëwoon bëgg a dem ne amuñu fas amuñu gélëm amuñu tàndarma amuñu yobbal ne leen yenent bi jox ay ngànnaay jox leen yobbal dañoo bëgg a xare ji yenent bi ne ma it aw ma fi fas aw ma fi ngànnaay aw ma fi gélëm gu leen jox aw yobbal ñu daal di jooy nag ndax ñàkk mën dem gi ñàkk mën dem ci xare ba ñooñe itam amuñu bakkaar moom la alquran di wax laysa ala duafa warut warul ñi nga xam ne doyadi warul leen ñoom it xarajun bakkaar bu ñu demul ci xare bi wala ala almarda warul way feebar ya xarajun bakkaar wala ala alladina warul ñi nga xam ne it laa yejiduna amuñu maa yunfiquuna la ñuy dundale mooy li ñuy dépensoo ca xare ba warul leen xarajun benn bakkaar charte nag ida nasaxu su fekkee laaye nañ biir lillaahi ñeel yàlla wa rasuli ak yonentaam maa alal muxsinin warul ñi nga xam ne dañoo rafetal min sabilin benn yoon wallahu yàlla gafurun aji baal la mu leen rahimun aji yërëm la mu leen wala ala lazina bakkaar warul ñi nga xam ne it isa ma atawka bu ñu la dikkalee li taxmilahum ngir nga waral leen ba ñu xeexi xulta nga ne leen laa ajidu aw ma maa ahmilukum alayhi fu ma leen di waral nga gis leen nag te walaw ngay dëddu waaye noom seen bët ya tafiidu ma ngay bëbb mi dami ci ronkoñ xasanan ngir tiit allah yajidu ndax amuñu maa yanfiquuna li ñuy dundalee ñoo am lu leen metti sadaqallahu mawlana azim moo tax it yow yeneen ci bi na nun yàlla naalamuhum noo leen xam baal ak nun nag sa nu addibuhum danañ leen bugal marratayni ñaari yoon benn bi mooy danañ leen gàcceel ba ñépp xam ne naa feq lañ benn bi nag nga baa ak ñun su ma yuradduuna defi delloo leen ilaa adaabin jëm ci mbugal azimin mu daay ji màgg waa xaruuna am na ñeneen ci ñoom waa dëkk bi itarafu nangu nañ mooy reconnaître nañu bi dunuubihim ci seeni bakkaar ndax ñoom xalatu jaxase nañ amalan jëf saalihan ju yiw waa xaraak jeneen sayyaan ju ñaaw ak ñooñu nag moom asallaahu mën na yàlla an yettu ba mën a ngu tuub alayhim ci ñoom ndax inna laa nag yàlla xafuur naa ji baal la mu leen raximun yàllaa ji yërëm la mu leen bàyyi na loolu mu ñëw ci sarax nee na sarax dana laabal bakkan ci ay bakkaar waaye dana ko laabal ci ak nay mu ne tu ak tuub la goo xam ne dafay raxas bakkan dafay defar jëf te mën na fanqal doomu ay mbir yu bari yu neexoon na yàlla mu naroon ko mu naroon ko jubale ci moom ndax it bakkaar bi nga gàddu naroon nañ la ci mbugal tilim bi nga yore naroon na nga ci am ay musiba kon li koy raxas loolu mu ne sarax la dafay laabal bakkan day indi ngërëmal yàlla dafay sange alal dafay dëgëral ak bokk dafay rafetal ak tuub day fari bàkkaar day beesal ak kóolëre dafay dëgëral imaan moo tax sama borom ne yonent bi aleyhi salaatu wasalaam xoosu kon jàppal من أموالهم تسين على اليوم نينيا صدقة صرق بو قمنا تطحرهم دنا ملابا لين وتزكيهم تموي سلل لين بيها تسرق با وصلي تنغي نيانل نك عليهم تنيوم بو جلي سين صرق نك نن لين نيانل لين جزاكم الله خيرا كي نيران جانغل دفن كلمة الخير نينا أكر لا تكري الجنة من تخلنا بولا نتكي جوغي قم قم لم لا جوغ كن مصر لا جوغ لوني تولو waaye boo ne ko jazakallahu xayran nee na kon fay nga ko ndax xayru ak kër la ci aljanna te kooku mooy dayo mbir ma mu ko defee mu wax ay doomam ni leen kon dama bëgg ngeen woyal ma aw way wuy wane ne xayru aw tur la ci turi aljanna mu daldi ne wa qila an al alxayra isma daari min duwari aljanna an al almuxtaari sëriñ bi ne déedéet ustaad bi ne déedéet xiila werut bëgg naa wax ju gën a dëgër xiila mu nekkoon dukkira an alxayra isma daari min duwari ljanna an ilmuxtaari ulamaul usul waxtu wuñu ne zukkira rek mooy xadis la buñu ne zukkira loolu mooy xadis kon loolu mooy xayru moo tax mu ne leen kon ak sag julli moom xayru la ñeel leen kon loolu moo di sag ñaan ndax sag ñaan moo di nga ñaanal leen xayru kon nag boo la nit ki joxee sarax ngir yàlla yiw itam na nga ko ñaanal ak xayru te xayru mooy loolu moo tax mu ne wasalli alayhim inna salawaataka naka say ñaan yow yonent bi aleyka salaatu wasalaam sakkanoon ak dal dal xel la lahum ñeel leen wallahu yàlla samiun aji dégg la alimun aji xam la tax na ba képp kuñ yaakaar ne moo la ëpp xam-xam ci yàlla ak ñaanam lañuy ñuy gën a yaakaar ndax li yàlla wax ne inna salawaataka sakanun lahum ndax li nga xam ne mooy nekk ci moom alam yaalamu ndax xamuñu ne anna laa naka yàlla huwa moom daal yaqbalu mooy nangu tuub an ibaadihi ci jaamam wa yaaxudu yàlla mooy jëlit a sadaqaati sarax yi loolu aarifoona yi ñoo ko xam ndax ki saraxee day jël naan am yàlla jox la te yow yaa ko jox foofu am na loo fi wax yow mi joxe yaa ne ko am yàlla jox la te yow yaa ko jox moo di ne aji joxe ji ngir yàlla moom jeex na ba lab ci péeyab rububiyatu ba buy joxe sax du gis boppam ne mooy joxe kon war na lab ba naan ko am yàlla jox la aji nangu ji itam yonent bi nee na booy joxe alal ngir yàlla mu ne loxo ba koy nangu ci loxol yàlla nga teg sa loxo moo tax mu ne wa yàlla mooy jël asadaqaati sarax ya waa na laa yàlla huwa moom daal atawaabu mooy nangu waa kooni tuub arrahimu mooy aji yëram foqul waxal ilamu imalu jëf leen kon ci loola loolu yenu na ndax itam buñ ne defal ngir yàlla yàlla tegoo ci sa bët defal ngir àllaaxira xamoo kañ lay ñëw waaye terewut jaral na la génnee sa alal joxe kon yow am nga ci sell ak éene loo xam ne fokk yàlla mooy nangul boppam loolu wa sa yarallaahu kon nag def leen yàlla dana gis amalakum seen jëf wa rasuloo ko yeneen taamul mu'minin ak jullit ñi wa su turadduuna def na delloo leen ilaa alimil xëy bi ngeen jëm ci bindeef yi faddu yi wa shahadateeg ya dem ci bindeef yi faddu yi mooy nit ki bu xasee faddu rek ngeen gisatun ko li doon dund ci moom dem na kon dem na ci alimul xëy bi ëllëgee buy dekki mu bu nekk ci alamu shahaadati wala ñi nga xam ne ñoo am shahaadatu kashu ñoom ñooy xam ne roxo gi ma nga ci pay sangam mooy ila alamul xeybi wa shahaada yu yunabbiukum yàlla moo leen di solo bi maa kuntum ci li ngeen nekkoon te amaloon di jëf ko doomu bu góor góorloo dafay dox ci pay yàlla yi te yëg ne ma dox di jëm ci kanam képp koo xam ne xam nga yàlla te doxatoo boo doxatul jëm ci yàlla rek booyee boo mu wóor la ne taxaw nga boo taxawee bu yàggee dangay dellu gannaaw nit ku nekk jullit bu nekk war naa yëg ni muy doxe di jëm ci yàlla ni muy gën a jege pay bi yaa ngi koy xamee ci ni say def bakkaar di gën a di wàññeekoo ni say jàmm yàlla di baree noonu ci ngay nattee sa dox jëm ci pay yàlla yu sell yi bàyyi na ñooñu ma ngi ñëw ci ñeneen ñoo xam ne wuute woon nañ ba demuñu ci xareb Tabuk yitteeloon na yàlla lool ca ña demoon waaye ña fa demulit yitteel na ko moo tax mu ne yonent bi waa xaruuna gannaaw naafeq yooyu am na ñeneen ñoo xam ne jaw na ñu ñuy yéexe lañu jaw na arja yurji isa xarahu ci la ñuy jëlee ab taifatul marjiya l'islam dafa bari ay tawaayif yonent bi Ali salatu wassalam bi muy dund ci ak nun bobu mom dong lan don xol diko deglu benn kuri amuton ci l'islam ñepp a ci sunna lañu won waye bi bu fi yonent bi joge mu am ay balbala ci ay babakar mu xex delo si ñu murtadi dajale ay nit ñu bindal qur'an bala mo reer comme nin ko nettalee woon jamono Omar ibn al-Khattab noona jamono Ousmane mu am balbala am ay yëngu li ñu tàmbalee wuutee ay parti sosu teqalikoo tàmbalee ñëw ba ni ñu reyee Ousmane muy xissa boo xam ne ulamaaw taarix nettali nañu ko ba ñu reyee Ousmane nag balbala dal di ñëw ñu sampa Ali ibn Abi Talib Muawiya ibn Abi Sufyaan radiallahu an dal di lank loola booba ma ngi nekk gouverneur ci Syrie mu taxaw di xutba ca minbar ba yore mbubb bi Ousmane mi takk deret naan ndax ñoo bokk bàyyi seeni bàyyi bokk dal di ne xool leen yéen jullit ñi xalifa bi yonent bi ni ñu ko boomee dal di merloo ñooy ñëpp ñu takk xare ànd ak moom mu dajeeg Ali ibn Abi Talib ci xeex bu ñuy tuddee maarakatu Saffayni comme ni ko histoire l'islam nettalee xew-xew yooye ba mu amee am ci jullit ñi ñu ne ñoom du ñu ànd ak aliyun te loolu rek laa bëggoon a wax ndax aliyun ma ngi xeex ak maawiya jullit la du ñu ànd ak maawiya ndax maawiya ma ngi xeex ak aliyun ñu ne kon ñaari xalifa yépp jàng nañu xalifa bii ak koy contre <coughs> jàng nañu ñoom ñu ne ñoom daal duñ ci ànd kenn ci ñoom dañu leen di muñal bàyyee seen mbir yàlla looloy ji a taifa bi njëkk génn ci lislaam boobu mooy marji a ma baat baa ngi bàyyeekoo ci murjuuna jooju ñu ñuy yéexe lañ ñu ñu muñal lañ li amrillah imma benn yuaddibuhum yàlla bugal leen wa imma benn yetoobu mu nangu tuub alim ci ñoom wallaahu yàlla alimun aji xam la xakimun yàlla aji xarala la léegi bàyyi na loolu ma ngi ñëw ci masjidu duraar wa ma adraka lan mooy masjidu duraar li ko tax wàcc mooy wàccee nañ ko ci qubaa ci qubaa masjidu qubaa ci ali kalsoom ibnu hadm moom moo doon sëriñu magu gàdd gàdd googu bokkoon ci banu amr ibnu awuf ñu ngi bokkoon ci xeet wuñ naan awsa waa awsa la woon ak waa xasraj ñii nag ñu ngi bokkoon ci batnu ci batnu min aws ñooñu yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñu mu gàddaayee ba duggee madina ci wàllu bëj saalum la duggé madina ba mu soré madina mana bere bi jakk ji nek tay bi ko yonent bi jubé ñaari kilomètre muy ñaari junney mètre dafa waccé fofalé mang fa altine mu fa altine talata, alarba, alxemes ñoñu ne ko defal ñu jakk fu ñuy wara a mu reddel leen masjidu quba yenente bi ko sampal leen ko julli fa ñaanal leen barkeelal leen ko xam naa loolu mooy inauguré boog mu barkeelal leen ko boobu mooy masjidun ussisa ala taqwa min awwali yawmin bi nga duggee madina jàkk ji nga njëkk sos ci ragal yàlla jooju mooy masjidu quba ma nga fa ba léegi gën nañ ko yaatal gën ko defaraat waaye ba tey quba ma nga fa fu mu nekkoon bi nga xam ne banu amr ibnu awf defal nañ leen masjidu quba bañ tabaxee ba mu jeexal ñu yónni yonent bi nee na ñëw dalool leen ko yonent bi ñëw julli fa ñaanal leen seen mbokk ya nag ñuy banu Gunm ibnu Awf ñii ñooy banu Amr ibnu Awf ci Aws lañ bokk ñoom ci waa Madina lañu ñoom ñoo moom Quba foofa lañ dëkkoon léegi nag seen doomi baay tax yële nga xam ne ñoom ñoom itam ñooy banu Amr ibnu awf nga xam ne ñoom jàkk ja seen doomi bàyyee na ñun itam daal lii <clears throat> du mën a sotti fokk ñun itam ñoo am benn jàkk bu mel nii e, suñ jàkk ja ñuy banoo xunma ibnu awf ndax it ñi duñu am jàkk ju barke nii ñi di ko tudd taarix di ko wax te ñun duñu am loolu kon ñu it dañuy def jàkk waaye ñun suñ jàkk yi gën ñoom it ñu daal di génn daal di fondement seen jàkk yónni yónnee ci yónent bi nee ñëw jullil leen ci seen jàkk ji barkele leen ko yonent bi ne leen maa ngi dem Tabuk bu ma dellusee ma ñëw yéen it jullil leen seen jàkk ñaanal leen ñu ne ñun nag ñooy gën le ndax ñun comme yonent bi ñëwagul nañu wooyi labbe bi bu ñu wooyee labbe bi mu ñëw njëkk ñu fee jullil labbe bi bu jógee Sham ñëw jullil ñu fi muy abu amiru rahib bu ñu jullilee ñaanal ñu ba pare bu yonent bi ñëwee ñaanal ñun nag ñu am ñaan ak ñaari sëriñ yi yépp ñun ñu am ko ñun ñun ñooy gën le yonent bi nag bu mu ñibbisee jóge Tabuuk fekk yitte woon na ne su ñëwee dana dem ci ñoom ñu ñëw nag ne ko ñu ndey danoo tabaxoon jàkk ji ngir soxla ak la ak bu tawee duñ mën a àgg ca Quba ñu julli fii kon nag dañ ñëw ñaan pour nga eh, eh, barkeelal ñu ko te in aradna idal xusna njëkk rek di lañ bëgg ak ak lu baax yeneen bi ne baax na léegi day maa ci tukki mi waaye bu ma dellu seede dinaa ñëw bu ma jógee taboog daal danaa ñëw julli leen fa bu bu soobee yàlla ba mu demee taboog nag balaa mooy ñëw yàlla wàccee ci moom aaya yi wan ko ne jàkk kat soo déggee ñu ko di ko wax mooy jàkk joo xam ne farfarloo taxut jàkk joo xam ne añaane ñeneen amul jàkk joo xam ne toppandoo tax jooju jàkk sharia du ko nangu bu fa julli bu fa sa tànk taxaw te it na nga yebal ñu ko toj ndax kooku masjidu duraar la ndax jubluwuñ ca lu mooy teqalikoog seeni mbokk ak toppandoor leen ak ajaane leen ci li nga xam ne moom lañu am yonent bi alayhi salaatu wasalaam dal di woo ku naan malik ibnu daxsham malik ñëw mu ne ko àndal ak ali ibn abi ak ñeneen bu ngeen demee ci jàkk jooju jàkki tooñ la ngeen mabba ko te lakk ko gaa yi ñëw dal di ko màbb lakk ko masjidu duraar nag ña fa doon julli fukk naafiq la woon ak ñaar ci aws ak xasraj ba ñu demee ñu màbb ko alxajaas yi mu ne kon nag masjidu duraar bu amee foofu ci Medina mu ne ndaxam nekk masjidu duraar kon mën naa am ci dëkk bu ne mu ne kon day am ay règle yoo xam ne jàkk ju ko mel rek lakk ak màbb ak tëj ko jooju jàkk moom loolu lay yelloo mu ne bu jëkk bi mooy jàkk joo xam ne ña ko ña koy defar dafa am ay ñuñ ci bëgg a lor ak ñuñ bëgg a mu ne loola bu fekkee moo tax a jóg jàkk mu ne jooju masjidu duraar la nañ ko toj mu ne ba mooy ñoo xam ne dugalul leen ci waaye ay pexe ak sot sotloo ak fa ak kañaan ak firante ak indi fitna ak duma topp ci diw ak diw fu mu nekk ma dem feneen ak mu ne loolu itam bu amee yooyu jàkk nañ ko toj ñu tëj ko masjidu duraar la mu ne ñetteel ba mooy bépp jàkk boo xam ne jàkk amoon na su beneen di am tey jubluwuñ ca lu mooy teqalikoo ndax mënuñoo ànd ak ñee mu ne itam atiq ba mooy baax waaye boobu yoon toj na ko ne na na ngeen ko bay mu ne ñeenteel ba mooy jàkk joo xam ne ña ñañ ko defal sax julli nekkutoon seen mbir ndax dégg mu ne ay nafiq lañu woon julli nekkul seen mbir jàng ak jàngale sax nekkul seen mbir waaye ñoom jubluwuñ ca lu mooy ñee am nañ ñu ñeneen ñu def ko mu nekk irsaadan man xaaraba allah wa rasula kuy naafiq bu ñëwee mu nekk sa kër mu ne jooju jàkkitam kon nañ ko toj wa ma aksarahum mu ne walladina ñi nga xam ne ittaxadu jàpp nañ masjidan diraaran ngir lor ci jullit ña wa kufran ak weddi wa tafriqan ak teqale baynal muminin bu fekkee éene ya sell na lu jàkkaye jege-jege dara nekku ca bu ñu ko defee ngir yàlla bu ñu tegaloo woon it ndax ku ne mënoon a def këram sax muy jàkk kon nag tegaloo geeg jege gi dara nekku ca waaye la tax ñu di ko def loola am solo wayir saadan ak fuglu li man xaaraba ñeel ku xeex na laa yàlla wa rasulug yonentam min qablu wala yoxlifu na ñu géñ ne in arat naa déen ñuy bëgga yilal xusnaa lu may njëkk wallahu yàlla yashhadu dana seede ne innahum ñoom la kaadibuuna way nar lañ yow yonent bi laa taqum bul taxaw fii ci jàkk jooju abadan faw la masjidun jàkk joo xam ne aussi sa fondement yef na ko ala taqwa ci ragal ci yàlla min awali yow min njël benn bis bi ngay dugg jàkk eh, médina a jooju moo gën a ay an taquma ngay taxaw fii foofale fii nekk na ci jàkk jooju rijaalun ay góor yoo xam ne yuxibuuna bëgg nañ an yatataharu ba ñu laab wallahu yàlla yuhibbu dina fay almutahirina way laab yi afa man ussisa moo ndax jàkk joo xam ne fondement yeef na bunyaanuhu tabaxam ala taqwan ci ragal mina laay ci yàlla wa ridwanin ak ngërëm ndax jooju jàkk xayrun moo gën am man wala jàkk joo xam ne ussisa fondement yeef na bunyaanuhu tabaxam ala shafa jurufin ci koos woo xam ne aji gebbeeku la xaarin wuy mabba fan haara muy golli bi ak moom fi naari jahannama ci safaraw jahannam juru fin héerin fan haar yooyu yépp ñoo mutaraadifaat lañ wallaahu yàlla la yaaj di jubalal xawma nit ña addalimin mooy naa naafiq ba fa nekk sot sotloo ba nekk eh, ak teqalikoo ga nekk ci jàkk jooja ku ca nekk rek ku ca dugg rek di fa jullee mu yaa ngi ci kóos woo xam ne koo su beeñ la wutiim pax mu am safara te kon dafay golleeku kon jege nga safara lool wallaahu laa yahdil qawmu zaalimi laa yazaalu du dañ bunyaanum seen tabax ga la dégg nga xam ne tabax banahu tabax nañ ko riibatan di sikk fi quluubihim seen xol ya illaa an taqataa lu may bata daggee quluubum seen xol ya wallaahu yàlla alimun aji xam la yàlla xakimun aji xarala la mu bay na loolu inna la ashtara min almuminin lu ko tax a wàcc tafsir alqurtubi alimaam alqurtubi wax na te du moom dong ñu gën a bari ci mufassiroona yi wax nañ li qurtubi wax ne nañu aaye boobu ña ko wàccee ci bayatul aqaba thaniya ak bayatul aqaba al kubra booba lan waxoon nañ ko léegi juróom-ñaar fukk ak ñett lañu woon ak ñaari jigéen loola mooy lan ba yonent bi alayhi salaatu wasalaam demee aju mag xam nga yeneent bi aj na ñetti yoon benn yoon bi boobu fekk na kenn santagu ko li aj ci lislaam boobu bu mu demee ca àq ba bañ ca jamaratul àq ba moo ñu tefal ko wattam mu yendu fa am ñu ñëw jaayanteeg moom dugg ci lislaam ñibbi madinatul munawara di fa tas lislaam ci déwén sa it yenent bi aj na ba mu ajee ñëwati ba àqaba juróom-ñaar fukk yooyu ñëw dugg ci lislaam dem ñibbi madina ba ñu jóge woon di fa tas lislaam abdullah ibnu rawaxata bokkoon na ca ña doon jaayante ak yonent bi ci ba saniya dafa ñëw na yonent bi ishtarit li rabbika wa li nafsika ma chita na ci sa yàlla lu la neex nga teg ñu ko ci charte yow itam la neex nga teg ñu ko ci charte daan ko def yonent bi ne comme da ngay dugg ci diine ji kon képp kuy tuubal nit war na déglu ni yonent bi doon tuubalee ñooñu dañ na ko chartal ci sa yàlla lu la neex daan ko def sartal ci sa bopp loonu teg daan ko def yeneen bi ne sama borom day moom li ma leen ci teg di leen ko charte mooy nangeen ko jàmm moom kenn bu leen ko boole kenn lay charte ci yàlla sama bopp nag li ma ciy charte mooy lépp lu ma leen tere rek may duma ko def lépp lu may def rek dinaa leen ko digal lay charte ci sama bopp kon nag noonu lañuy ñuy dugalee nit ci diine ñu ne waaw li nga wax bu buñ ko defee nag lan lan lan la ñu yàlla dig mu ne li may wax bu ngeen ko defee yàlla digg na leen aljanna abdullah ibnu rawaxata dal dina ak ah, kon dey rabiha al bayu laa nuqiilu wala nastaqiilu kon dey suñ jaayante gi am na tono duñ xàccee kenn dunu xàcceel loolu mooy bayatul aqaba assaniya loolu moo ko taxawàcc yàlla ne kon inna laa yàlla ishtara jënd na minal muminina ci julit ña anfusahum sen bop wa amwaalahum ak sen alal bi an lahum len al leen al janna yuqatiluna ñuy xex fi sabilillah fayaqtuluna ñuy ray wa yuqtaloona dee fi rey leen waadan dëll alayhi bi war yàlla xaqan deug la fi tawrat ak linjil wal qur'an wa man awfa ku matalna bi adihi ana kan mo gëna matal bi adihi ci ko kóolëre min lay ci yàlla amut amul kenn ku dàq matal yàlla ko kóolëre kon nak ndem yena jaay sen bakkan ak sen alal ngir yàlla yàlla xam ngeen ne kenn gënu koo matal kóolëre kon fastabshiro bay bég leen bi bayikum ci seen jaayante allazi bi nga xam ne bayaatum jaayante ngeen bii wa dalika loolu ko moom alfawzu moo di texee alazimu gudaay ji màgg taayibuun ñooñu nekk nañ di way tuub alaabiduun ñe di way jaamu yàlla alxaamiduun ñe di way sant seen borom asayixuun ñe di way woor arraakiuun ñe di way julli arraakiuuna saajiduuna ñadi way ruku ak sujjóot al amirun ñoy ñoy digle bil ma'ruf ci lu baax wa naahuuna ñoy tere anil munkari ci lu bon wal xaafiduuna ñoy wattu li xududilaay ci daylu yàlla yi ñu la wax ne ñoy julit ñi wa bashiri bégalal kon al muminin way gëm ñi yàlla bàyyi lol ma kana lin li wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikin lu ko tax jàng nañ ci limam muslim mu jëlee ci Saïd ibn al Musayyib mu jële ci Musayyib baayam Musayyib nee na Abu taalib ba mu nekkee ci sukkuraat di waaj a dee yenent bi da koy ñëwal comme moo ko yar ñëw fekk bu Jahlan ko seet si ak Abdullah ibn Umayata waaye yenent bi terewul mu ne ko Eyo eh, ya sama Wahala waxal laa ilaha illallah dong jarul ya sax ngay ci muhammad rasulullah waaye na nga wax rek laa ilaha illallah ndax loolu soo ko waxoon tey ma dégg ko dana nekk baat boo xam ne danaa la ko mën fa mu fekk abu taliban ci sukuraat abu nga ci wetam ne ko ah atargabu an millati abdul muttalib dangaa nara bañ diine ja abdul muttalib sa maam sa baay nekkoon yow abu talib ba nga nara dem ci diiney gune yile waaye abu talib waxu dara yonent bi moom dañul di baamtu baat bi naan ko waxal rekk laa ilaha illallah di ko wax ci kanamam di ko wax ci kanamam ba roox ga génn olamaa wuy ne ba tey yàlla dëppalewu ko at mu wax baat boobu bi muy dee daal li mu mujj wax mooy ala millati abdul muttalib maa ngi dee ci diine yi abdul muttalib te diine yi abdul muttalib moom nekkutoon lislaam ndax dee na balaa lislaam a ñëw yonent bi ne amma wallahi la astaxfirana laka ma ana anka wallahi dinaa la ñaanal yàlla mu jéggal la feeg yàlla terewuma la <laughs> waaye yàlla tere na ko ko yàlla ne maa kaana yellut li bii ñeel ab yonent walladina ak ñi nga xam ne amanoo gëm nañ an yastaxfiroo ñuy balu lil mushrikiin ñeel ay yéefér walaw kaanoo donte nekk na yéefér yooyu ulil qurba di boromi jege ñaale kon mel na ni bokkuk deret kum tax nga yaccaaral jaamu wa yàlla jàpp ci dara ndem ki yàlla yónni woon bàyyi tax bi ko yar mu sonn ci banaan waxal nangam danaa la layal ci yàlla loola la mënul dara ba yàlla naan ko innaka la tahdi man ahbabta mënoo jubal ki la neex walakin la yahdi man yasha kon nag ku deful dara yaakaar ne jege nga diw ci bokk wala xëjja nga ca moom booye boo nga xam ne jàppoo ci dara ndax moom du man dara lu muy ñaan te buñ ko nanguwul du sotti ndax nyan baa ngi nii ñaan na yàlla bañ na ne du def te kuy ñaan sax yaa ngi yaakaar yàlla nangoo ñaan ci bi te moom ko lii kon nag boo jàppee ci lii waaye boo xam ne yow sori nga ñu koy nangul min baadi ma tabayyana gannaaw bu biree la um ñee leen annahum naka ñoom asxaabul jaxiimi waa safara lañ wa maa kaana nekkut istixfaaru ibrahim balug ibrahim li ci baayam mu mel ni dañ ne ko ibrahima day waxoon na baayam ne ko la astaxfiral na lak naa la ñaanal njéggal yàlla nag ne déet ñaan ak ibrahima doon ñaanal baayam njéggal nekkut illa an mawidatin lu may ab dëël la woon waada dëëloon na ibrahima iyaaw bayam loolu moo tax waaye falama tabayyana ba biree la wa ibrahima ni annahu naka baayam adduwun noon la li laay ñeel yàlla tabarra ibrahima dañ na minu ca baayam ndax inna ibrahima la awwaahun dellukat ci yàlla la xalimun ko ku daaji lewet wa maa kaana laaw nekkut yàlla li yudila di réeral aw nit baada is hadaahum gannaaw bu mu loolu yàlla du ko def xataa yatabayyana lu may ba ko ko wóoree ta yattaquun la danañu ragal ko inna laa yàlla alimun aji xam la bi kulli cheyin ci lépp lëf rek yàlla xam na ko inna laa yàlla la wa ñeel na ko mulku samawaat yi moomeel ak asamaan wala ardeeg suuf yox yi yàlla mooy dundal wa mooy rey wa maa lakum de di ñeel leen min dooni laay lu dul yàlla min waliyin kuy méngoo seen mbir wala nasirin du caageen ku leen di tere bàyyi na loolu laqad taaba allahu ala nabii loola lu ko tax wàcc ak ñett ñooñu alquran di tudd seen tur ba ñett ña ku nekk naan ñett ña lu jëkk li mooy jaysul usrati jaysul usra mooy xare boo xam ne xareb Tabuuk la xare la boo xam ne waxtu ñàkk ci la ñu nekkoon waxtu tar-tar la woon bi woote jëm Tabuuk ne nañ xeexi ak rome yi nga xam ne ñoo nekkoon ci atrafu Sham fekk na ñenn ñaa ngi bëgg séddoo seen meññitu tàndarma ñenn ñi li ñu yor ci dugub ak shayir dañ koo denc teyit waktu waxtu wo xamne ndox lu jafé la sahaba yi ñi nga xamne woon nañu dem and ak yenen tibi sallallahu alayhi wasallam bañu démé seen yobbal jeex na ci Allah ba seen ndox jeex na ci Allah ba ba dañuy mujj di rendi jël kërsha ga muy mbàqu ga di naan ndox ma ca nekk ndax gëlëm bokk na ci xayawaan yi nga xam ne bu ñu naanee dañuy am lu war a mat lu war a war a mat cinquante litres yoo xam ne dañ koy def ci benn béréb muy réservoir ñu di ci jël ndànk-ndànk muy jaar ci buutit bi di dem ci yaram wi waaye ndox moomu du soppeeku te loolu dina am weer ndox moomu dara du ko jot moo taxoon ba ñu sonnee ñuy rey gëlëm yi di naan ndox moomu nga xam ne moo nekk ci seen biir te yonent baa ngi ci seen biir ba ba sonnee ba sonn benn waay ñëw ne yow mi yàlla yónni naaj wi tàng na tabuuk sori na ñi ñu fi doon seet si yi doon seet si fii daw nañu léegi dañu war a waññeeku waaye amuñu lu ñu naan ba ñibbi ndax danañ mën a àgg wala déet waxtu mbooyo la yonente bi alayhi salaatu wasalaam comme ni ko albusayri nettalee moom itam nee na rakwatun yonente bi sallallahu alayhi benn guuxi ndox la laaj ko ci ku ko ci desee ñu ne ko diw dey dese na tuuti ndox mu laaj ko dugal ndox loxoom ci biir mbuus mi defoon ndox ma di bés baaraamam ndox mi di génn ndox mi di génn ba mbuus mi fees ñu di yeneen mbuus muy bés rekk ba ñépp duy seeni mbuus ba mu fees ñu naadal gëlëm ya amaat seeni ndox na mu melaat na mu meloon loolu yonent bi def na ko keroog ci jaysul usrati muy xareb Tabuk moom la waykat bi di wax naan rakwatun arwatil miina bi massil mustafa niama sayidul mutaali benn guuxi guuxa ngi boo xam ne nandal na ay ay téeméeri téeméer ak njinne ci doomu aadama ngir barket laal gu yonent bi alayhi salatu wassalam laal ndox momale loola amna ci jeysul usrati waye ba ndox ma ñewé ba fessel mbuus mi sa bay ku ñu jox rek nga ne joxal diw moma ko gëna soxla ku ñu jox nga ne joxal diw moma gëna soxla ba ku mu jëk dañ fekk marwa raynako alquran ne wayu suruna ala anfusihim walaw kaana bihim xasaasa ku ci nekk da ngay ëfal sa morom ëfal mooy gënal gënal sa morom ci yow donte soxla nga ko itam loola mooy xareb Tabuk mu am nag ñett ñoo xam ne ñoom demuñu woon xareb Tabuk te ñoom ku ci nekk amula woon ngant danga defoon rek sa sa bakkan ak seytaane moo la tere woon a dem ñett ñooñu alquran di wax Kaab ibnu Malik ci la bokk Hilal ibnu Umayat ci la bokk ak ku ñu naan maraarati ibnu rabii ñett ñooñu ñooy ñi wute woon xareb Tabuuk te mënoon nañoo dem yenent bi ñibbisi na pour nettali xissa boobu ñuy dellu ci Buxaari yi nam ko nettali woon Buxaari ne na jëlee nañ ci Zahri yi mu jëlee ci Abdullahi ibnu Kaab Abdullahi mooy nettali ne baayam kaab ibnu malik ca la bokkoon kon baayam ma ca bokkoon moo ko nettali ne ko abdallah ndax xam nga li li nu daloon mu ne ko bàyyi déedéet mu ne xareb boog déggoo li ma daloon man maag maraarata ak hilaal mu ne ko déedéet mu ne ko nag abdullahi déglul ma nettalil sa sa bàyyi kaab nettali la li ko daloon mu ne nu ndey xareb Tabuk demunu woon man nag mësuma wuute benn xare bu yonent bi dem lu mooy bii bii nag wuute ga ma ko wuute woon keroog laa gën a mën a dem ndax am naa lu ma war am naa lu ma yobbaloo te am na yeneen xare yu ay nit demuñu waaye bi yonent bi ñibbisee yeddul kenn waaye bii nag ndax ndax ndax Badar man man man dew ma badar waaye bi yonent bi ñëwee waxut kenn lenn dafa noppi rek yeddul kenn ku ne ngaa ñëw lay bii nag yonent bi ñëw na ci xareb Tabuk ah ba mu ñëwee dal di toog ci jàkk ji julli ñaari raka toog nag waa dëkk bi ku nekk ñëw noyoo julli ñaari raka daal di noyoo ne ah yow mu yàlla yónni ñaanal yàlla mu baal ma man de ñëw ma woon ndax nangam ak ki nangam ak ki nangam ak ki nangam mu ne ñëpp rek ñëw di def mu ne man nag keroog wax dëgg kàttan la ma amoon ci war mën a dem mosuma am lu ne toll xéwal yi ma yore woon it mosuma am yu ni toll ndax maa ngi ñaari gëlëm yu ruy ay tukkal yoo xam ne mën nañoo dem fu nekk te it am naa lu ma lekk waaye dama ne woon daal duma dem ndax tàngaay bi metti na béréb ba ñuy dem sori na rome yee ñuy songi ñu bari lañ kon daal man duma dem mu ne ma toog rek ba yàgg ma ne waaw ma man sama ñàkk dem gii mbaa dana ma jig ba yàgg ma ne eh comme tàndarma yi ñor nañ ker yi lëw nañ naaj wi tàng na béréb ba sori na kon daal man du ma dem ah gaa ñi waaj mu ne gaa ñi dem nañ man nag ah ji waajuma sax maa ngi toog rek nekk ci li ma nekkoon rek ba yàgg ma ne ah dama leen di dabe ndax sama gëlëm gi tukkal la mën naa dem ba yëguma lu ma yonent bi xëy na jullit ñi ànd nañu ak moom jëm nañu Tabuk man maa ngi ak sama yobbal de waaye maa ngi naan ah gaaw naa doxam ñaari fan de mën naa leen koo jot ndax sama gëlëm gi moom ak ma mu ne may wax loolu rek yëguma lu moy rek guddeeg bëccëg ñëw na jant so fenkaat jant so rek yëf yi daal di yàgg gaañi sori seytaane bés ma ma tayal kër yi neex tàndarma ji ñor bërëb ba sori ma ragal noonu ba eh tayal na mu ne ma daal di toog dematuma tëdd rek mooy léegi nag yonent bi dem na ba dellusi si na ma nga ci jàkk ja yaa ngay nuyoo mayit ma ñëw maa ngi naan mu man tey dama war a wax dëggam rek ne ko def naa bàkkaar wala damay ñëw may lay rek fen ndax moos xam naa ni am na ñuy fen file lay lu duwul dëgg waaye man daal mu ne ah man daal yaakaar naa dama mën a mucc lu may ba tama waxee dëgg rek kon nag damay wax dëgg rek lu ma ci sekk waaye sekk ma ci dama ñëw daal di julli sama ñaari rakka toog nit ñi toogee nit ñi ñëw di wax ku nekk ñëw joxe ngantam ah jaayante ak yenent bi yenent bi ñaanal yàlla jéggal leen xam naa ne yàlla moom moo xam secret yépp ba man nag ma dikk nag bu yonent bi xool ma rek daal di muuñ waaye muuñaayi ku ma mere la niru mu ne ma waaw yow kaab lu la teree ñëw mu ne ma yow Malik lu la ñëw ma ne bu fekkoon de toog naa tey ci keneen ku duut sa kanam danaa lay waaye nag ci sa kanam daal sañuma ma wax lu dul deug mu nek rek na yalla ak ma jox fasaha go xamne ne ma am katan ci wax mané mané woor na ma suma fe ma dag ma gëreem rek waye xamna ne kon yalla du ma te man gëreemal yalla bëgg mo tax dal yow mu yalla yoni bëgguma fen ndax bëgguma nga gëreem ma yalla mere ma dal wallahi aw ma woon ben ngànt amul benn xare bu ma ànd ak yow lu may bii laa gënoon a am kàttan te demuma yonent bi ne ah kii nag day moom wax na dëgg daal dinaa ah, demal ba yàlla waxee ma ci yow yàlla waxuma ci yow dara mu ne ma jóg ñépp nag commencé di ma yedd naan yow daal ay dof rek lu tax ngay wax loolu munoo woon a lay rek ni nit ñi layee ma ne leen waaw ndax li ma dal dal na fi kenn ñu ne ma waaw dal na fi ñaar ma maraarati ibnu rabii demul te mënoon naa dem moom it Hilaal ibnu Umayyat al-Waqifi demul mënoon naa dem ma ne ah kon sama xel dal na ndax al musiba ida ammat hanat musiba moom bu bu matalee rek day daal di doye di te it ñaar ñooy ñu ma tuddal day wax dëgg ñoom a gën ndax ñu baax lañ tey ndax ku ci nekk ci ñoom fekke na xare badar te yenent bi ne na woon laala llahu italaaka ala ali badrin fa qaal imalu ma shiitum faqad gafartu lakum kon nak comme ñooñu fekke nañ badar te def lima dal dal na leen sama xel dal na ma dem tok yeenent bi nak na ñun ñett ñooñu bu nu kenn waxeti ku nu nuyu bu mu nu fay te bu nu kenn nuyu bu kenn wax ak nun eh ni ñi diñu diñu diñu watandiku xarit bo xamoon sax bo solo mel mbedd di tassek mom, day teggi wala mu wëññeeku legi nak ñun ñu nekk ci non rek mune sama ñaari gaay nak. ku ci nekk tëju ci néegam rek di jooy te loolu nekk nañ ci juróom fukki fan ci noonu rek sama ñaari gaa yooyu nag ku ci nekk yaa ngi jooy toog sa néeg ndax it ni leen nit ñi dogoo man nag damay dem ci marché bi damay julli ji ci jàkk ji di wëreelu di dem waaye nag kenn duma ma waxee bu ma waxee kenn du ma tontu su ma wëree ba sonn rek ñëwal sama kër dem ci marché ba buñ noddee ma dem julli ji rek léeg-léeg sax su ma ñëwee ci jàkk ji danaa nooy yonent bi waaye damay werante ndax yëngal na sax ay ay tuñam ngir fay ma wala déet loolu sax damay werante ndax daal duma dégg dara lu jógee ci moom mu ne ba ñu nekkee ci loolu nag ba mat weer ak fukki fan yonent bi yónnewaat beneen ndigal bu gën a metti daldi ne suñuy jabar nañu ñibbi seeni kër suñuy jabar nañ ñu beru ñu teg ci loola ah ma ne comme yonent bi ko wax sama jabar mane ne ko ñibbil rek ndax loolu la yonent bi wax mu ne hilaal nag moom góor gu mag la woon ndeysaan fekkee woon xare Badar moom gannaaw gi yéen yonent bi yónnee na ne jabaram dellu si ndax moom mag la bu néew doole fokk jabar ji di ko dimbale waaye man man day man man Malick man sama jabar ñibbi na ma ne ko ilxiqi bi alik loolu nag nekk nañ ci fukki fan léegi ni ñepp ma beru won bam dess des sama jabar sama jabar itam léegi yoon neena na beru demna, na ñu tegati ci fukki fan ci ñeen fukki muy juroom fukki fan ñu na dama julli ci fajar mu ne bama julle fajar rek ma seen kuma xol rek dal di waye dal daldi di mané lu xew ñu ne ah xanaa yëgoo li xew yalla nangul na len ak tuub alquran wacc na tudd len wax seen mbir nit ñi ku jog rek ku selmal keer yak ñew ci man jox ma loxo daldi di ree dal di ne maa ngi lay ndokkeel sa tub gu rafet gi yàlla tudd na la mu ne nii daal lan génnee ci mbir ma alquran ne laqad taaba nangu na tuub laahu yàlla ala nabi ci yenint bi wal muhaajiriin ak ña gàddaay ña wal ansaar ak wal ansaar alladina ñi nga xam ne ittabauuhu toppoon nañ ko fi saatil usrati ci waxtu jafe wa min baadi kaada gannaaw bu jege yasiqu di jëng xuluubu fariqin xolu ab kuré mooy mbooloo minum ci ñoom su mataaba topp yàlla nangu tuba alim ci ñoom innahu yàlla raufun aji yërëm la mu aji ñëweete la mooy yërmande ji sori rahimun aji yërëm la biim ci ñoom yàlla nangul na ñoo ñu tuub wa ala ak ñett ña ñett ñooñu la la si ñi nga xam ne xullifoo tardeef tarde loof na leen wuute loof na leen xata ida daqat ba xat ci ñoom alardu suuf bima raxubat ak li muy yaatu yépp suuf mujj na xat ñoom wa daqat tiqat aleyhim ci ñoom an anfusuhum seen bopp wa zannoo ñu joortu ne an laa malja déet benn wéeruwaay min laay ci yàlla ilaa ilayhi lu mooy jëm si ci yàlla suma taaba topp yàlla nangu tubaalim ci ñoom li ya ngir ñu tuub indi laa nag yàlla wa moom attawaabu mooy nanguwaa koo ni tuub arrahim mooy aji yéram yaa ayyuha alladina amano yéey yéen gaa ñi gëm alquran ittaqullaha ragal leen yàlla wa koonoo nekk leen maa saadiqin ànd ak ñi nga xam ne ñoo dëggu ndax boo dëgguwul it boo ànd ak ñu dëggu di leen déglu bu yàggee kon yow itam na nga daal di dëggu bàyyi na loolu mu ngi ñëw ci jihaar lu war la mu ne maakaana yellut li ahlil madinati ñeel waa madina wa man xawlahum ak li leen wër min al aarabi ci ay sàmmkat yellul ci ñoom an yettaxidu an yettaxallafu ñuy wuute an rasulillahi ci yonent bi yonent bi warul dem benn xare waa madina ak li ko wër di wuute xare ba yàlla ne wala yargabu bu ñu xeme mukk bi anfusihim seen bakkani an nafsihi ñu sib bakkanu yonent bi benn feel la feel bépp feel boo xam ne ñaari jaar ak majruur ñoo ko topp léegi ñu doon jàng naxu laay waxal bépp feel boo xam ne ñaari jaar ak majruur dañu ko topp dañuy seet buñ bokkee benn xaraf bu leen jar kon nga xam ne jigéen lañu duñu bokk jëkkër mooy duñ bokk fu ñu duñu góor lañ duñ bokk jabar loolu mooy duñ bokk fu ñu aju waaye bu fekkee ne ñaari xarafi jar ya leen jar bokkuñu kon jaar ak majaroor yooyu ay jigéen lañ mën nañoo bokk jëkkër loolu moo tax baatab raxiba mu ne bi anfusi an an a ngi jar nafsu bi jar anfusu kon ñoom ñëpp ñu ngi aju ci yar xabu ndax xaraf yi leen jar bokkul ci gannaaw loolu baatab raxiba bu jàggatee baa bëgg ak xemem lay tekki bu jàggatee an bañ lay tekki motax tax mu ne wala yarghabu bu ñu xemem bi anfusihim sen bop an nafsihi ñi sib bakkanu yonent bi alayhi salatu wassalam zalika loolu bi anhum nak ñom la yusibuhum du jot len zamaun aw mar wala nasabun du tiagen coono wala makhmasatun du tiagen ab fi sabilillahi ci yoonu yàlla wala yatawna duñu deug mawtiyan ben deug way yaghizu bob dana merlo al yéefar yefri ñoom ñay xare ji wala yanaaluuna du ñu am min aduwin cim noon nay leen ay am maanaam mu dara lu leen di jot lu jógee cim noon mu di am nattu walay jam-jam illaa kutiba lu may bindeef lawum ñeel leen bii ci loolu amalun muy jëf saalihun judaa ji yiw inna laa nak yàlla laa yudiu du sànk ajalal muxsinin yàlla booy rafetal walaa wala yanfiquun du ñu dundalee nafaqatan benn dundal saxiratan bu ndaw ci seen alal wala kabiratan du caageen bu mag wala yaqta'uuna duñu dagg waadiyan wenn qur illa kutiba lu may bindeef lawum ñeel leen li yajzihum ngir fay leen law yàlla ahsana ma kaanu gën jaarafe te la ñu nekkoon yaamaluuna di jëf ko lépp lu leen dal ci yoon wi buy pakk bu dig dig alal juñ joxe yépp ci jaar bi la yàlla bind leen ko aw yiw bàyyi na loolu mu ñëw ci sàkku ji xam-xam nee sàkku xam-xam farata la ci jullit yu góor ak jullit bu jigéen mbooloo mi yépp su fekkee ne ku xam sharia nekku fa ku munta lijjanti miraas nekku fi ci dëkk bi yépp kon dëkk bi yépp dañuy dal di am bakkaar ñu séddale leen ko waaye bu fekkee am na ci sàkku ko ba xam yu xóot ya ak yu waroon a lëndam yépp kon bakkaar bi dafay wàcc doomu aadama yi yooya nag mooy xam-xam yi gën a xóot mooy ilmu tafsir ilmul xadis al usul ilmul faraid al ak yaa ci yooyoog xisaab yooya mooy nekk fardu kifaaya amaa xam nooy jullee xam nooy wooree nooy azaka nooy ajee kooku fardu ayni la ci jëmm ju nekk amaa yu bari yu xóot ya bu ko ñenn xamee euh, duñ ko teg ña ci des ndax ñépp yàlla mayut leen ñu mën koo xam bor buur bi tabaraka wa dafa bind doomu aadama yemalewut nu nag ñàkkale yemale googu nag loolu coobareem la bu fekkoon ne keneen ku duwut yàlla la kon dañu naan loolu nekkul démocratie lu tax yemalewut kii ak kii waaye loolu tigi mooy démocratie ci yàlla ndax bu fekkoon ne maag yow danoo bokk nekk nit bokk nekk jaamu yàlla bokk na bokk na boo ma ëppalee wala ma ëppalee la loolu mën nañ caa wax dara waaye buri yàlla moom démocratie la ndax boo jëloon xaalis bu bari lii nga def ko ci jiba jile lii nga def ko ci jiba ji nga génnee dërëm ci jiba bi le jiba ji naan la euh, amoo ci droit lu tax nga may génnee xam nga yow loolu ay ree la lay def ndax yow yaa bokk moom lépp kon nag yàlla moo bokk moom nit ñépp lu ci def rek loola moo jaado <clears throat> loolu moo war a am su ko defee moo tax doomu dama yi mënuñoo yem ak yem moom mënu la sotti góor ñi duñ yem jigéen ñi duñ yem góor ñi jigéen ñi itam duñ mën a yem duñ yem ci li nuy am duñ yem ci li nuy xam moo tax yàlla bind koo xam ne boo ko waxalee mu xam ci lu gaaw bind koo xam ne boo ko waxalee dana xam waaye du gaaw mu bind koo xam ne su xamee balaa yàgg mu fàtte ko mu bind koo xam ne su xamee da koy téye du ko gaaw a fàttee ñooña nag comme yemuñu te noonu la leen yàlla bindee moo tax tegun ñëpp ñu war a am xam-xam yu xóot yëpp waaye nag euh, li ñuy tuddee minimum mooy aqallu shay nooy julleek nooy wooreek nooy azakee nooy defee say ibaadaat loolu nag farata la ci jàmm bu nekk war na ko am yu xóot ya nag mu ne am ñu génn wuti ko loolu lay wax ne maakaana maakaana nekkut almuminuuna julit ña li yeen di génn kaa fatan ñoom ñëpp wuti xam-xam loolu du sotti waaye walaw laa nafara tee génn min kulli firqatin bépp mbooloo minhum taayifatan ab kuré daal di génn li xaw ngir ñu jàng fiq dégg fi diini ci diini ji ndax buñ ñëwee wala yanzuroo ñu waar xaw moom seeni nit isa rajau bu ñu dellusee see ci ñoom laallahum ndax ñoom yaxzaruna ñuy wattandiku bay na loolu mu ñëw ci nu ñuy war a xeex ak yi mu ne yaa ayyuha alladina amanu yéen gaa ñi gëm alquran qaatiloo xeex leen allazina yéefér yi nga xam ne yelonakum danañu ménga leen minel kuffaari ci yéefér mooy yéefér yi leen gën a jege ci dëkk na ngeen njëkk a xeex ak ñoom balaa ngeen a dem ca ñenn ña wala yajidoo nañu fekk fiikum ci yéen xilsatan ak xiis akuk dëgër waala moo xam leen ne ana laa nag yàlla ma al muttaqiin yàlla ànd nag ñi nga xam ne ñoo ragal yàlla bàyyi na loolu mu ñëw ci naafeq yi nan lañ gisee alquran mu ne wa ida ma unzilat ndem wàcceef na suuratun aw saar fa minum nekk na ci ñoom man yaquulu kuy wax naan ayuhum kan ci ayukum kan ci yéen zaadatu la dolli ko haadihi bile aaya imaanan ci gëm yàlla ñu naan nakam lim ne na alquran la ana kan ci yéen moo jógee ci alquran ji am lu yokk ci gëm yàllam buur ne faama ledina ndaal ñi nga xam ne amono gëm nañ fa zaadathum doli na leen imaanan ak gëm وهم تنيوم يستبشرون نيغي بك واما الذين دال نيغا خامني في قلوبهم نيك نجي سين قليا مرض فيبر فزادتهم دولين لا رجسن مبغل الى رجسهم يجم سي سين سوبسا وما تو ني دي وهم تنيوم كافرون وي ودي لين اولا يرون دا دانيو غيسو ني انهم نيوم يفتنونا ديفنا نتولين في كل عام بيبار مرتن او يون او مرتين بارنا نيو خام فنا توبي جوغي با ني توب su ma topp ñoom nag laa yettubuuna duñu tuub wala um deen ñoom yedakkaroona ñuy waaru wa ida ma unzilat ndem wàcceef na sooratun aw saar nazara xool baaduhum leen na ci ñoom ila baadin naan hal yaraakum min ahadin ndax kenn ngi leen di gis bu leen kenn gisul rekk su man sarafoo ñu walbatiku sarafallaahu soppi na yàlla xulahum seen xol ya bi annahum ñoom xawmun aw ni lañ laa yafqahuuna duñu dégg moo na leen a waxal ba wax ji dugg ci ñoom ba ñu dégg ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam darajaam ci yàlla mu ne laqad jaakum dikkal na leen rasulun ab yonenta min anfusikum mu bàyyeekoo ci yéen du du jinne du malaaka waaye nit la ci yéen la jógee di nit te azizun aji tedd la alayhi ci moom azizun aji cher la alayhi ci yonent bi maa anittum li ngeen di sonnee lépp loo xam ne yéen a ngi koy sonnee mu di ay métit ni ngeen ko yégee non la ko yonent bi yegge kon kenn la ci yéen di yëg li ngeen di yëg te rewul xarisun aji qir la alaykum ci seen ak baax te mom day rawfun aji ñëwete la rahimun aji yeram la bil muminina ci julit ñi fayinta walaw bu fekke ne dëddu ngeen ba bañ ko woyse faqul ya yonent bi waxal ni hasbiya daynama allah yàlla la ilaha illa benn bur ila walu mooy yàlla alay ci yàlla tawakkaltu la sukkandiku wa huwa yàlla rabbul arshi moy borom arash al azim budaji magga برهام باء وراء ألف ثم ها ميم مجل فيض تيجان جخن نينان